jëkkër ji la war hmm. boo feebaree mooy faj moo lay jox li ngay lekk xam nga chaque jour 10 000 dépense 5 000 la mais du diine hmm. soo ko joxee 10 di jar 10 000 xanaa benn jën lay togg dépense jour bu ne ak lam laaj hmm. ku ne xam na ne mbaxali saalum bokkul luñ koy nduggeeg suppa kànja déedéet bu eh, eh, ceebu jaga ak donc pourquoi chaque jour ñu tënk ko fenn la mais dama islam ba muy wax jurum johel juróom d'accord daf ne dund la dund nag ci situation la am na réew moo xam ne duñ fa lekk ceeb am na réew moo xam ne mburu la ñuy lekk donc soo waree dundal war a woddu war a dëkkal nga war koo dëkkoo ci sa ndigg yow donc dafa am responsabilité yoo xam ne yaa koy amee ni koy amee mooy moom du génn ci kër gi te tàgguwut la hmm. su waree dem daf lay tàggu hmm. ndax den koo yilif ñu xam fan la jëm hmm. ak kañ lay des parce que den la yilif dëgg la tey kuñ fi jàppoon rek eh, xaw ma nan sa passeport den lay jox droit kañ nga war a dem kañ nga war a ñëw. kenn moomul kenn ba yilif donc kenn moomu kenn mais règlement moo ñu moom moomloo nit ñi. toog neen fi jamono ñu ne bu kenn génn vingt heures. waaw génn da ngeen autorisation. ku ñu ko def loo sénégalais la. mais mm. urgence moo taxoon. wér wéradi moo ñëw. islam nag day sàmm sa sécurité. fan nga war a dem parce que yow ut loo wuñ la ji dépense daf la fa war a fekk si. ut loo ji wuñ la xarit sa jëkkër mooy sa xarit lu waaw yàlla mooy sa xarit fi la yàlla yem loo yem fekk yaa ngi ci dëgg doo daal donc yow loo soxlaa xarit waaye war naa tax góor nekk mais ma ma daaneel war naa tax góor nekk ci kër di lëmbe non mais ma daaneel sëñ bi mais ma rek ma daaneel mais ma daaneel donc tey warta warta warta dugal ci kër gi ku la neexul waaw parce que man maa yilif kër gi li koy gaañ man maa koy xam gis nga kilifa olof daf lay wax ne du tuuti hmm. non pas forcément lépp lu ne rek pas forcément non non non gis nga su wax ñëwee lu ndaw mën na ko yàq lépp lu ne ci àdduna pas forcément jigéen dafa war a gis régal mais am na ko dul gis rek. waaw feebar donc kon lu ne lu ne rek. non mais lu ne rek. lu ne dafa war a forcément lépp lu ne rek mun nga caa joxañ baaraam bu ñuul ak lu mun a doon. Mm-hmm. suñ la ne xar bi dafa weex sax nga ne weex na mais béjjën dafa ñuul. waaw te béjjën yàqul xar. Mm-hmm. mais dama la bëgg a wax ne waroo dugal ci kër gi ku ko neexul. waroo génn te tàggooloo ko waroo ko aaye sa bopp lu dul circonstance. waaw circonstance bu islam nangu. d'accord donc lii su leeree. tey règle droit am la moom mais pas que droit góor gi la yow doo dugal ku la neex d'accord yow tam gis nga sàmba mu ngi ñëw wóor na leen a sàmba tuxkati boon la sàmba jugee na prison nga imposé sa jëkkër carrément ne danga koy bàyyi parce que baaxul du sa droit liñ la may mooy consultation nga ne ko chéri bébé papa lo loo ti xew. yow xam nga lan moy maison familiale may ma ñëw may ma ñëw may ma ñëw ñaari jabar la ci non wax ma ñaari maison familiale. bi nga xam ne Cheikh waxal Cheikh waxal tu as deux femmes waxal waxal waxal familiale. donc tey li may wax Cheikh waxal tu as deux familles waxal waxal. yéen ma jaaxal quoi. non nga ne ko chéri. waaw nga ne ko chéri. père Mangoy na mii may gis ci kër gi. doyut ma. ndax raison A B C D. pare nga ci. waaw d'accord ci bugaan lay dess nak mu dakh père Mangoy ne wala mu kon ne daanu mais doo ko imposé bàyyi ko ci l'islam la waxuma sa xalaat waxuma sa bëgg-bëgg remarque ci hadis yonent yàlla Muhammad bu nekk ci Bukhari bu leer lan la wax dafa wax ne. ñeent mooy wareefu jigéen. non waxuma wareef. non waxuma wareef si dàq bi. droit bi ñëwaat ko droit xam nga soo ma laajee. may may ma tontoo la man ni mu demee mais pas yow nga imposé ma tontu. donc donc si droit bi. jabar amul droit. amul droit mais fan lañ ko waxee. non fu ñu ko waxee wu ne. waaw damay mu waxal. xulmba xaala. bàyyi leen jàmm waxal fan ko waxee. s'il vous plaît vous perturbez là. bàyyi bëgg a wax déedéet soo xul waa xaala nga ne arrêteel déglul non dégg déglu leen ko bàyyi leen jàpp demal li ma bëgg a wax mooy ku baax jigéen waaw warul ànd ak ku neexul jëkkëram waaw d'accord nañ loolu yëpp d'accord nañ d'accord nañ Gur ci bopam jigen amul droit mm-hmm. imposé jëkkëram mm-hmm. x ngay andal wala egg y imposé la la wax ne ku muy àndal baaxul ah. parce que góor gi ci boppam ah. noo kay ma wax xam nga lu tax non mais wax su xam la sofi wax su xam fan ko man suma ah, ya waxuma yow Ah. non daaneel ah, <laughs> li ma bëgg a wax mooy. li ma bëgg a wax mooy. nit ci boppam góor. Mhm. dafa am lu ko war. Mhm. am loo xam ne warul jigéen. Mhm. mais góor ci boppam. balaa ngay takk sëy den la aaye ne bul ànd ak diw. bul ànd ak faas képp kuy def bàkkaar te nëbbul ko du sa xarit. dëgg la. donc yow balaa ngay dugg ci sëy am na fu lislaam jaar ak yow. dëgg balaa ngay jox fetal. pour nga am droit rey ak ñàkk a den lay entraîné ba pare. góor gu taxaw takk jabar rek pare nga sa entraînement mooy ne mat naa lañ ma doon doyee bëgg naa koo xam ne dina ko tette ci diine say règlement la jigéen amul droit imposé jëkkëram x ak y ngay àndal soo ma buggee laaj fu ñu ko wax ma ne la fan leen wax jigéen ne imposé ku mun a indi aay bi wala xadis non non non xam nga tey xam nga tey dafa am lu yomb tey yàlla ko wax lii la diine la mooy gardien wu kër gi non li ma wax non c'est faux gaa loo ko ko mu toog ci kër gi waxoo mu toog ci kër gi. Ah, toog ak gardien du benn. Ah. Ah. non ah mun ngaa toog sax doo doon gardien soxna si. waaw Sam Sam kii waxoon na day toog eh, Sam mooy gardien kër sa faux. amul amul kër gi la kon waaw d'accord papa xaaral waxuma warul toog léegi nañ jël sa xeer dañ koy indil dama waxuma warul toog kii daf ne chef la wax waxuma warul toog Benoît léegi bu dul gardien la ma jël sa terme yow ñëwaat ci li papa doon wax nga ne lan la bu dul gardien on prend le mot qui t'arrange non lan mooy gardien. mooy dàq naa gardien. léegi bu ko dàqee lan nga teewal. déedéet yow loo jàpp ne jigéen la ci biir kër gi. jigéen waaw loo jàpp ne jigéen la ci biir kër gi. jigéen. waaw waaw lu tax lu teggi waxu papa. du ko teggi. li papa wax maa indi. li papa wax papa li nga wax maa indi fi ko yàlla wax. mais tout soogal mel ni ku ko taw fa. xaaral xaaral xaaral. du ma oustaz non du oustaz Sénégal mm. Sénégal boo xoolee ko tontu. Ah. non maa koy déglu laaj ma ko ab safaan di am. te kii di sa soxna. Mm. te mu leer gu waw gi mën naa lakk gu tooy gi. dëgg la te. papa balaa ngay laaj Cheikh bëgg yow nga am soxna Kaja nekk ci biir kër ga. waaw Benoît nekk doxaankat. exemple waaw exemple. waaw. exemple yow mënoo jël exemple si Prospère. Ah. yaa nekk sama yaa nekk sama droite que moi. Ah. pourquoi mu jël exemple. lan lay jëlee Bakary na ko jël si parce que Bakary bàyyi garaawul Bakary ah <laughs> Bakary bàyyi ma jël Bakary sama gaayan la. waaw Bakary moom garaawul moom mi ngi fii rek mën nañu koo sànni lu ne Bakary par exemple nekk sa xarit. waaw. yaa ngi ci kër yi ak Kaja. waaw Bakary nekk doxaankat tey mu jël Sophie suba mu jël. Euh, euh, Ramata suba mu jël Yacine. sa jabar xam loolu parce que xam na Ramata xam na Yacine wala xam na xaritu Ramata wala Yacine. yow li ngay sekk ak Bakary yaa ngi koy sekk ak moom. jàmm ak salaam ngeen sekk mu ñëw sa kër di fa naan si ataaya. bu reer jotee ngeen reeraloo ensemble bu gunge jotee nga gunge ko. ngeen di waxtaan. Kaja ñoo ne la permet ngoo ne mon amour ça va ça va bien j'aimerais bien bëgg nga bàyyi Bakary parce que Bakary doxaankat la su fekkente ne gis na su ma gungee bàkkaar yi su duma ma dellu si damay téppeetle léeg-léeg ma dem ba fajar ñëw daal di koy fëgg ñëw nekk ci état d'ivresse bu doy waar ah yow lu ko ivresse doxaan nga waaw lépp a ngi ci lépp a ngi ci non man dem naa gunge ko ñëw na lii la jikko woo. ànd na déedéet waxuma ko ay yi muy wax noonu ay fanaan ay traversé. dama waxuma fanaan de. j'ai pas dit ça xam nga une personne responsable un mari responsable. xam na ne kii eh, attends attends du gunge xaalitam 21h ba 22h sax. am na ci nag un mari j'ai bien dit j'ai dit un mari responsable la question de Sofia j'ai dit un mari responsable gis naa ko de. gis naa ko de. j'ai dit responsable. est-ce que gis naa ko ca ëllëg sa ba waaj a dellu see ca kër ga dafa xeex ak ndaw si ndaw si ne ko yaa yóbbu sama jëkkër. dama ne dama ne am na de. dama ne père. su boobaa si ku Bakary feeñee yaa gën a sikk Bakary. am na de. Bakary naar yéen a am na de lii ma xam na barke borom Tuubaa ñëw kër jàmbur yóbbaale borom këram. borom kër laa gën a sikk Bakary. waaw benn pomme de terre bu pourri. ah mën naa yàq de. on parle de Père Mbaye Ngoné on parle pas de pomme de terre. ma chérie <laughs> on parle de Père Mbaye Ngoné ah, Fall. ak ah, ce qui est marié. je ne peux encaisser. je ne peux encaisser. je prends de pomme de terre pour dire que xarit boobu après bu dugg. je m'expose je ne peux encaisser. Père Mbaye Ngoné qui est une personne responsable. marié wu am euh, xaritam waxu wala ndoxaan sax dafa sedd. muy tuxu yàmba di naan di watata. bu ñëwee këram. waaw bu sekk ak moom lu muy sekk ak moom ba pare. bu dee père may ngoone ku responsable. waaw bu ba ci buntu kër gi. da ñaanal mu dem ku ne dem. non non wax nga.

mais vous ñu une ba maison familiale. Ah. ma femme a le droit. de prononcer kër si les règles de ci baat am ci baat nangam du am. wala nangu dama ay famille man ma nit. samay famille Di gëna di wax bu ñëw sama kër. Mhm. di ma conscience. parce que sama jabar neexu sama jabar woo ma juróomi yoon. Mm. ne ma kat sa rakk bi seen caat bi ni muy doxalee si kër gi du yoon. pourquoi juróomi yoon. jëm naa na ko def sax deux fois man su boobaa dinaa xam naka laay réglé sama rakk ba nga xam ne loolu kër gi bu neexee mu ñëw. bu neexee mu toog mais dinaa ko régler ba nga xam ne loolu dootu fa am. non yow on est d'accord ah, xam nga fa jëm laa la wax. on est d'accord xoolal na ñoo xam ne dañuy ñëw si kër. parce que Sénégal ñëpp xam nañu Sénégal demee. dañuy ñëw si kër gi pour yàq. bu dee góor bu dee bu dee góor bu responsable. balay doo doo doo ñëwaat jabar di gis yow fan nga nekk yow. doo ñëwaat man may ànd ak nit. muy ñëw sama kër. di may yóbbu am ngay xarit am yow am ngay xarit yoo xam ne doo bëgg ñu fréquenter sax sa kër. parce que xam nga ñu mel. moom laa la wax parce que tu es responsable. am na góor yoo xam ne. Mm-hmm. mënuñu ne seen copain bi nga xam ne day ñëw mu leer ko ne ni mu nekkee si kër gi neexul seen jabar. Mm-hmm. Mm-hmm. lan lay def bu boobaa. mu jabar ji moo koy mun a wax. mu nekk fa di maslaa jabar ji moo koy wax bul ñëw non jabar ji moo koy ne kat ah. yow est-ce que xam nga kii si kër gi lan la fiy def ak lan la fi indi ak lu fi am. waaw wax wax am na de. bu day am te yow xamuloo ko yow mi mu nekk sa xarit. mën naa nekk mën nga ko bañ a xam. moom kay nee na xam nga ko mais mënu ko dàq. non dama ne xam nga ko mais mënu ko dàq parce que bu ma ko dàqee mu génn. nee na mënu ko dàq léegi sa jabar sa jabar bu la laaxaanee noo koy dàqee. mais boo leen ma ko non non bu ko sobee bu ko sobee. non non bàyyi mu sobee ko. non non soof ma man sama wàllu bopp am na yoo xam ne jabar am na ci droit Mhm. du ma xaar sax. lu yàq na di may ne lii ak lii. voilà mais dafa naan mais ah, je suis tout à fait d'accord. waaw vas-y vas-y. man je ne parle pas en tant que Benoît. non si je parle je parle pour une société sama jabar man Benoît sama jabar man Benoît loolu nga wax du exemple laa leen jox exemple laa leen jox dama la ne su may wax je parle. pour loo xam ne pour ñëpp. non yow su da nga naan man Benoît man benn loolu toujours loolu ngay wax. dans leur maison parce que am na ñuy ñëw. di bëri nit ñi ak souffre tout le monde souffre dans ce monde là. mais tout le monde souffre ma yegg. parce que ay souffre dama la bëgg ne yow souffre lan dama la bëgg ne yow prospère. oui. ce que tu es en train de faire. waaw maa la ko dàq. mooy lan quoi ay yow tu souffres ak ay li ngay def. non waxuma tu souffres de. écoute-moi dama ne tout le monde souffre. maanaam bopp gi mu nekkee yaa ko dàq. li ngay def nii j'ai pas dit que. waxuma loolu de waxuma loolu de yow. tu as le plein droit. nga gis sa gis-gis. Ah. mais bul ma géntuloo sama gént. man je te parle dans une maison. point la femme. et l'homme am yenn situation. Mhm. ku nekk da ngay poids ngeen teg. man de gis naa ko gis naa jigéen ji xeex de. parce que moom dafa ne. Ah. xeex ci kër jigéen. waaw amul droit ne jëkkër ji. nangam du fi amee kii bu mu fi ñëwati. waaw ma ne man loolu si maison familiale. bu fekkee sa jëkkër dafa am lu muy àndal si biir. àndaleen quatre cent dix mille fois mais sama kër. fi nga xam ne fa la sama jaboot ne. fi nga xam ne man fa laay tëdd. fi nga xam ne man du ma ànd ak man du ma ànd ak ku amul ak sama kër man. en tant que femme laay man du ma ànd ak ku amul ak sama kër man ku ma bañ mu dugg sama kër du ma ànd ak yow waxoo loolu su ma dama ne loolu bu ma sa jikko neexul ba mënoo dugg sama kër bu ma ànd ak yow. sa jabar ko mën a gis. exactement arrêté moom laa doon wax prospère na papa nit dund na ngeen nekk ñaari kër. nga mën ko waatal ne xelam nekkul ci sa jabar dama lay jox exemple ah, pour wax ne ne nit noo waatal nit dara nga ne sama copain la xam naa jikkoom ne bëggul non du ko toxaan sax boo deewee mooy njëkk ñëw sumi daalam ne dafa bëgg doon sa jabar kon kon am xelam mi ngi woon sa jabar merci papa du benn du xaaj du ñaar ci réew nit du may ma may ma nee na attendé may ko mu mel ni di doxaan sa jabar waaw là on déplace le débat waaw déglu père déglu déglu dégg li mu lay wax. ma ne Sophie Sophie je suis en train de dire. am na kay déglu leen prospère kii déglu leen. on n'entend plus rien yéen ñett ñëpp mënoo leen wax. non dafa am père eh, xam nga la am bul ma accusé déglu leen ban waa de wax na de. am na góor yoo xam ne. waa xaar leen ñu xam kan mooy wax. man maay wax am na góor yoo xam ne. ñu def ñu def benn trois secondes def leen nànk rek.

une maman Femme vous RTS vous koy très très fort Allez gros gros bisous Aïe aïe aïe Aïe ñoo xam c'est-à-dire ce sont gens

salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na nga def. ñu ngi jaar bu baax Père. fooy wootee noonu. man assuré wootee. ah sori woowu. waaw ñu ngi jaar bu ah, nga waxtaan wi. waaw <laughs> lan moo ci sa xalaat. waaw man sëñ bi maa dugal waxtaan sëñ bi nekk ngeen invité noonu. waaw waaw invité bi waaw man Sénégal dañoo toll ci benn niveau boo xam ne. Hmm. borom xam-xam dëgg-dëgg bu ñu ko invité borom xam-xam dëgg bu ko invité ci télé. Hmm. Hmm. Hmm. allo. dem na ndeysaan allo maa leen di dégg. ma ko bu ñu ko invité ci télé. donc yéen bokk ak moom plateau bi dafa benn cër boo xam ne islam ngeen ko jox boobu noonu. Mhm. parce que c'est bien beau ku nekk am sa pensée personnelle gis-gis lañ wax on bien d'accord sur ça. mais mais bi saa fi waaw xaaral a euh, euh, ngeen ma mayee may galee nga mën a ah, dama bëgg balaa ngay juum rek parce que damay bañ nga juum. Ah, ah. damay bañ nga juum. Euh, euh, on l'a pas invité en tant que oustaz bu oustaz peut-être ni mu solo hmm. moom moo tax. Euh, ngeen di ngeen di juum cër bi ñun ñëpp. non il n'est pas oustaz s'il vous plaît ëpp nu xam-xam de. mais s'il vous plaît papa cër bi dañ koy joxante ñun ñëpp. ëpp nu xam-xam peut-être ni mu solo moo tax ngeen ne. waaw ñu teg ko oustaz ngeen teg ne imaam la oustaz non non non non. ñun ëpp nu xam-xam. te cër bi dañ ko ko jox bu baax a baax. arrêté mu oustaz arrêté te moom il peut il peut du oustaz du sëriñ du peut-être ni mu waxee la rek nekk doomu aadama rek waaw arrêtez arrêtez arrêtez s'il vous plaît nañ ko bàyyi mu yeggali bi si ligne bi. waaw ñun nañ ko bàyyi mu yeggali waaw mën naa mën naa continuer. waaw allez-y allez-y ñu lay dégg papa nañ ko bàyyi ñu yeggali. gis nañu lu mu gisul su ma waxee su ma waxee. waaw xam nga ci lan laa wax parce que dafa ne islam la wax. du sol bi du yëre bi. lan la. dama ne su ma nee oustaz. du yëre bi laay wax lu mu wax la wax waxut la wax. non kii ñoo ko mag te doxul fi nu déglu ah, sunu tànk tegu ko fa. nañ ko déglu rek fi nu teg sunu tànk moom tegu fa tànkam. mais xana sax ci diine imaam yu mag sax dañuy kii. Ah. tegu fa tàng kii doxul yonent bi sax da daan da daan waaw da daan gaay ñu joxe seen ay ñu jox seen ay on est en train de am na loo xam ne ko ko waxee léegi du ko gëm te ci dox laa ko gisee te gisu ko gis-gis la wax dañuy waxtaan rek gisu ko dépassé wuñu fi kenn Cheikh boo fi ñëwati da ngay kii dara bi pourtant ñun ñoo lay tooñ sax di la wax oustaz depuis sax di nekk oustaz di nekk oustaz ñu lay bëtt ah. nii man dama ko bañ di la ah, bañ waaw na waaw

mooy wootee. di nuyu sunu sër yooyu toog noonu aussi. ñu ngi lay fay bu baax a baax. waaw di wax rek ni ñu ngi seetaan émission bi mais Benoît même bu fekkee ni ki toog du oustaz mais si mhm. se réfère rek bu ne dafay jël référence ne islam dafa wax par bon je le dis a quoi parce que nag pour mhm. euh, ma bokk aussi ak ki génn parce que comme ni ngeen waxee gis-gis la mhm. mais nit ki bu commencé développé rek. Mhm. dañuy soxla ñun ñi nga xam moo nekk di seetaan. Mhm. dëgg la pour mu mu mu terminer li muy wax. tout à fait d' accord. léegi en ce moment ñun dinañ mën a wax ne. Mhm. d' accord nañ ak d' accord. d' accord. parce que nag ñun Sénégal ni ñuy jàppee jigéen ci biir kër dañuy jàpp ne jigéen moom islam daf ñu may ñu war ko yilif moom ko moom ko nga xam ne fu fu ñu neex lay xool. Euh, man maa ngi tudd Maodo Malick dëkk Guédiawaye. Maodo Malick eh, waaw donc dama wax maa ngi yor naa ñaari soxna mais jigéen nga am droit droit wu jigéen mooy sëy ànd la yàlla boole ñu war a jàmm yàlla kenn ku ne di am looy motali sa morom ci sunu réew nag resté même bu doon diine suñu culture dafa nangu ne jigéen dañ ko yilif rawatina islam nangu ne jigéen day am Mm-hmm. mais am kilifa ne ba pas dire que ne dañ laa moom. Mm-hmm. ndax du loo jënd. du koo xam ne si sañ nga koo jaay. Mm-hmm. du koo xam ne sañ koo kidnappé. mais da nga koy sañ a dundal. di ko dëkkoo. di ko amal njariñ. moom tamit urbi mu sañ lay xelal. sañ ne kat nijaay wala ab comme li nga koy waxee. lii baax na ak lii baaxul parce que li ngeen bokk mooy da ngeen bokk jaboot am doom doom yooyu nag. dañ war a joxe ay exemple na stage bi li mu doon développé malheureusement euh, Benoît je sais que ci position bi mu nekk quelque part damay d'accord ak moom ci yu bëri parce que comprendre tempérament am mooy ñun Sénégal dañuy jàpp ne rek jigéen lu ñu neex def lu ñu neex wax wax na ko sax ba ko ci biir kër yi da ngay gis koo xam ne si day am sœur wala mu ay frère ñu mel ni jigéen bi mi daan ci kër sañ nañ koo teg lu mu Mm. wala mu def lu mu lu mu warul def. Mm. yooyu yëpp tam comprendre mais au retour bëggoon naa nga bàyyi euh, sage bi wala invité bi mu développé. wax mm-hmm. lan mooy lan mooy position moom parce que mu ngi doon laal ko amoon solo loo xam ne sax peut-être bu pare woon yéen ñaar da ngeen doon bokk fu ngeen doon euh, mm. jëm ci doon wax ne jigéen bu sañul wax jëkkëram bul ànd ak diw sañul wax jëkkëram bul dem barab barab place barab diw place diw mais ku sañ na xelal jëkkëram ne quoi ni jaay gis naa ngay ànd koo xam ne day soo moytul dina entaché sa image. parfaitement waaw loolu si l'islam fan lañ ko bind. waaw xam nga boo ma dugalee ci moom mooy oustaz. moo tax non du oustaz du oustaz du oustaz. parce que mun wax laaj naa ko ko quatre fois waxuma fan lañ ko bindee. waaw mais mais mais mais mais déglu loo ma su paree ma wax la. bon waaw. doo ma permettre rek xam nga comme yow da nga nekk en direct. waaw dañu doon échanger rek. je ñaar ngeen ci gën a mën a. xam naa yow question bi nga koy posé. mooy moom mu développé wax la ne la ban aaya wala benn xarit. moo wax ne jigéen. Mhm. sañul wax jëkkëram bul ak mhm. diw ak diw ak diw. Mhm. mais ci bon sens la ci bon sens. yow je pense que yàgg man ñoo bokk xalaat. ci bon sens lay waxee. waaw mooy jigéen dañu ko yilif defe naa nangul ko ko loolu. waaw nangul nga ñu ko. waaw jigéen dafay am kilifa. waaw kilifa jigéen bu xasee am jëkkër comme ni ko soxna waxee sànq wala moom sax moo ko wax mooy jigéen bu juddoo rek day am kilifa muy papa yaay. dëgg la oui. Hmm. oui c'est. waaw ah. allo donc man. waaw ah. moom bu juddoo rek. Ah. dafay am kilifa muy papa ak yaay. d'accord su xasee am jëkkër mu am kilifa muy borom kër. waaw. ñu ngi ko waxee bu dee am màggat. mu am kilifa muy doomam. waaw te loolu defe naa fii ci Sénégal kilifa yi ñun mosuñ bañ loolu. waaw d'accord. du dëgg mais au retour nag fan la islam bind ne jigéen. sañul wax jëkkëram bul ànd ak diw ak moo tax ma bëggoon oustaz côté boobu. Mhm. peut-être doon nañ investir ñun. moom la ñuy jox kàddu bi léegi incha allah comme ça mu bu baax. Ah, naa laaj ndax jigéen 89 90 papa may ma ne kër gi nangam du fi am muy ab safaan mu xool ko xam ne lii. fa muy dérivé du baax. salaamaaleykum waaleykum salaam. fa laay waxee. soxna si ñoom lay ziar. ñu ngi delloo ziar. jigéen sañ na ko. ñu ngi delloo ziar bu baax sëñ bi ba yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm maa ngi sant. Mm-hmm. jigéen de sañ na ko. Euh, bëggoon participer ci émission bi. Mm-hmm. Alaaji Basiru Caam Dogo. Alaaji. Basiru Caam Dogo. Basiru Caam Dogo kooku sëtu Dogo Faali Maawo Joor. Mm-hmm. Faal.

Omar Penda Coro Penda Omar Omar Tawa Fall. wallaay Omar Penda Coro Seyni Mbaye ak Ablaye Penda Coro waa Fall. moom bi réew maa wóole borom jàmm. wala waaw waaw ndeysaan. ndeysaan. moom bi Ndiobu Ndiobu bi réew maa wóole borom jàmm. Eh. Mbaye Ngoone. Bougane joxal ma ko ñaar fukki junni. man maa la ko sant Bougane. ak Fatim Ndiobo ak Yacoba Ndiobo. ndeysaan bi réew maa wóole borom jàmm. Sambo Maodo dama koy envoyé léegi cent mille cent mille bas la bas la bas waaw bas yow ba ngay piiree booba kilo pomme de nit doom la doon def ndax <laughs> gaa bi sa moo sa daf ko woo si ne ko dugal wax li gaa bi moo di jéy oh. dama toogal dogo waaw ay waay bas. damaa wax ni kooku li moom ci réew mi ko fi jëloon li des kenn du ko soxla. walaay caam bas ba basiru caam la. <laughs> am nañu boole sobel maamam. waaw. ndeysaan. fanweeri dammeel kajoor yi ak ñett maamam moo jëkk a nekk fan. moo jëkk a nekk dammeel. <laughs> am nañu boole ak dammeel. waaye Bakar Bakari waay. <laughs> ah maa indi ku ma tàggat. Samb ak Maodo dina la xaar ci jaxaw. lamentation fay taas ba tin dindi parat bu leen ma yaay mbokkum sëñ Cheikh Mbacke kay na fatu waaye boo demee Kajoor la tukkaat am war moo xaar fanweeri mbedd mu li nañu liggéey bu nekk mu te mu téeree fa xaboo daa jël kuru ko njóogu sa maam yaa si kuru njóogu ñëw bokk moom day bàyyi mu bóoli arrêté leen yow Faal ku ma la ndax yow la sukaabi sa maam la woon ak dogo sa maam waaw lu wér waaw mu dagg deretam mu dagg deretam ñu riboo kon bokk dama ne oh. non Basirou Thiam la dogo la Basirou Thiam Dogo. mooy li ma wax keroog. Mm-hmm. te Gaston ne eh looy kii. bu nga ñoo bokk maam. ma insisté ne ko ñoo bokk maam. muy Bekkaay Mbaye kooku waa Ndaat Fall la. d'accord kontaan nañu bu baax Dogo ci li nga. Mm-hmm. xam ne dégg nga mu ne sa maam la woon laccukaa bi ak sunu maam Dogo. sunu maam a xaañoon. Mm-hmm. waa kër Dogo yi moom mooy waa kër boroom këru. Kiné Lam. waaw d'accord Kiné Lam nag démaroo neen la. waaw waaye borom këram moom ma nga dëkk kër dogo sama maam la ko tuddee ndongo Malick d'accord d'accord léegi nañu wax na dëgg dëgg la dëgg la kontaan nañ bu baax papa maama xaañoon maama waaw boobu ah. maanaam soo gisee mu def ko repère la woon pour su <laughs> ëllëgee su demee ba la muy wuti mu am ko su wàññee ko ba ñëw ah. mën koo xàmmee moo tax ba mu ñëwee nii la doon def ci biir nit ñi diwal moom maam lat sukaa bi diwal di xool naan mu muy def nii muy xool ba sàgg gis ku mel ni oh, mu koy xool ne ko kaay mu ñëw mu ne ko lii nekk sa jëbi lan la mu ne ko kii dee ponkal mu njool moo xam ne moo xëy bis ànd ak xajam doon dem fekk ma ci tool bi may ndékki mu laaj ma ndékki ma defal ko mu rimbalu xajam xaj ba xappa xapp ba doyal

maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ci émission bi. ñu ngi leen di sant bu baax. am am na benn mbir rek boo xam yéen ñëpp maa leen di déglu tout le temps te ngeen def émission bu am njëriñ. dëgg la ma leen ciy remercier ba pare di leen am def faire di def benn remarque de contribution allo yéen a may dégg. bu baax a baax. waaw li ma leen di ñaan mooy da ngeen invité koo xam ni dafa passé woon développé benn affaire boo xam ni ñun ñuy déglu daf ñu intéressé. ma bëggoon leen ñaan rek ma buggoon leen ñaan rek su ngeen ko mënee may mu yeggali li mu doon dëppe wallaahi maa ngi ciy que dafa ñëw ni dafa am euh, accident maa ngi koy masawu di ñaan Sophie nga masawul ñu ko ci suñu tur di ñaan su ngeen mënee may mu yeggali parce que yéen ñëpp ku nekk wax nga sa gis-gis jox nañ ko dégg xëy na am na lu ngeen waxaat waaye bu ngeen amee invité buy soog a ñëw li muy wax tam daf ñu intéressé te gis naa saa yu waxee rek dañ koy dox mooy li ma doon ñaan inshallah allah dinañ ko dinañ ko jox bu développer légui légui ni en attendant lu ñu jël téléspectateurs yi 88 628 89 90 mais baax na ci mom comme ça beneen te day teel comme ça mu tolloo ah li muy wax ak ñeneen ni ah. les retardataires ont toujours tort c'est comme ça les retardataires ont toujours tort nañ jël keneen asalaamaaleykum 628 89 90 salaamaaleykum Sophia Diatta c'est monsieur Sambou ma maa ngi Sambou il est revenu Sambou voilà, ok. Donc, je vais aller très vite. Mais euh, vraiment, je salue euh, vraiment Fiji pour un pragmatisme. Vraiment, ça. Très bien. Je vais mais je vais parfois, je vais cadre à une Parce que sinon, souvent, dañuy titre non oui euh, Sen TV moo invité benn série ñi ñëw et vraiment je salue je salue seen invité parce que il a précisé d'emblée moom série parce que Sénégal <laughs> léegi man su doxuma si yooyu man série bu ñàkk série ñëpp laa yemale. donc mhm. nit la affaire yooyu comme ça. mënuñu invité nit après yow xamoo nit ki nga bëgg a kii comme ça bëgg a mettre pour se passer bonnois <laughs> comme xamante ne cërul diine bi fii dañoo invité nit. saabu kenn saagul kenn dañ ci wax ci diine et vraiment merci li ngeen recadré nii parce que seen gars lii moo tax mënul dem donc je suis vraiment parce ma ko accepté donc foofu lay foofu lay waxee d' abord bu ma ñëwee kon perte lay mën a yow <laughs> am nga cent mu ne. ah oui ñun am na ah. Père Mbaye Ngoné am na cent mille francs bu muy nee mais kon am na bëgg na gars yi cotiser pour jëndal ko oto. waaw non mu ne ndax am naa cent mille francs. booy Mbaye ba pare bëgg ñu cotiser oto. waaw waaw. aywa ah, ah, sànq bu dee on doit cotiser. déglu on doit cotiser. voilà léegi léegi damay ñëw ci. waaw ah, bàyyi mu def si thème bi. ay sànq waaw waaw mais mais léegi damay ñëw ci kii bi quoi dama bëgg. waaw ñëwal gars bu ko damaa bëgg a invité bi. waaw en fait euh, pour à ñu dem dans des débats de passion. Mhm. Euh, mu wax ñu exactement. Mhm. ban saar la ñu bind ou bien si dans le Coran que góor. effectivement bu joxé jigéen li fan lañ ko bind parce que ñoom soo yàggee ñu ngi insister parce que il parce que Sénégal yooyu moo fi bëri l'islam li la wax alors que on peut pas amener les preuves. débat dina la mais convaincu que bu fekkee indi na preuve c'est bien. Mm-hmm. je vais terminer par dire en fait comme ni ngeen ko waxé mariage il faut voir quelles sont les raisons il faut que boo nabatee nit ki nga ko le changement am man pour man il y a plusieurs raisons parmi lesquelles le comportement de la personne euh. entre les deux mun na am ay problème. ou bien aussi l'influence extérieure. Donc je vous dis bonsoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Sow. Monsieur Sambou. Monsieur Sambou. Je vous dis une chose. ma ne li ma wax monsieur Sambou moom mooy Suma ma 1 million tay dina ko jox Basirou Thiam Dogo. Wallahi ndeysaan. 1 million suma ko yoroon naa ko jox man li wax dama ko wax man ma laaj auto. man ma laaj auto. li wax bugaan déchargé naa bul bok. Yene waa diaspora bi ñu ngi nii toog nañu ubbi cagnotte bi ku ci nek 1 euro la la laaj 600 cent francs demandé wu ma deux jours demandé wu ma trois jours eh, dans le courant de l'émission xam nan lan motax tax ubbiwul ko dëgg la eh, ils ont peur que ñu ubbi ko ma am 50 millions yow nga ne len fi bu len ko ubbi say mbokk barke borom Touba duñ ko ubbi ñu ngi nii Sofia Diatta ak Sofia ñu ngi nii eh. suñ ko ubbee en moins de 24 heures ma laal cinquante millions man naa ko wax man maa ko wax dama ne nan ko ubbi ñu ngi nii. d'accord papa waaw un euro laa demandé. Mhm. ku nekk diaspora bi samay fant nag laa wax monsieur Sambou inutile. Bougane Gueye Dany merci arrêté suñu ko ubbee de un euro à su quoi xanaa suñu ko ubbee ñoom góor gi si den ñoom ñoom Famara Diédhiou ñëpp waay yow ñëpp waa trésor du géey waay yow waay yow waay yow duñ ko ubbi yow sàmm yow may naa la waa si suivre leen per toog waaw kay jërëjëf ñoom xam na euh, loolu damay ñëw ah, téléspectateur yëpp nee na duñ ko ubbi mukk ndax ah. <laughs> suñ ko ubbee gis buy. bon Alioune Ndiaye ñu ngi lay nuyu la ziar bu baax a baax. kontaan nañu xam naa ci xalaat. ay ca yàlla baax na waaw ba sonal lu ma Bougane ah. ba sonal lu ma ko de. Bougane Gueye pour mu jox mooto non. Chamet waaw. Chamet. waaw. la nga développé mais beneen yoon da ngay teel a ñëw de. parce que fi moom geen gars yi buñ rawee pour nga dab dafa métti sax sa yi ñu ngi kaas mais bon gis-gis sañu nekk ku ci nekk ak nu muy développer en plus il faut mu am échange mais échange bi aussi il faut que mm. comme ça nit ñi comme ça nit ñi di déggante d'accord mm. euh, ñu ngi lay delloo kàddu gi nga développer li nga bëgg a développé waaw li ma doon wax dafa am fu may war si si père mm-hmm. sëñ Cheikh Gaynde Fatma den ko laaj mm-hmm. mu ne géwél ñaara koy bay ku amul juddu ak ku amul manoor fii ku hmm. ñu wax sa juddu nga donc li may wax mooy. den ne diggee lu nekk. te ci sëy mu am fu mu yem. Hmm. relation yaa ma neex maa la neex amul règlement. Hmm. mu ngeen ko a doxale ngeen koy doxal. bu la neexee nga ne tey solal ci lu ñuul suba mu a la solal lu balaa. gannaaw suba mu ne la waxuma nangam yéen a yem. moo tax l'islam la wu ko terewu ko daf la ko moytuloo. ndax perte de temps fii mën nga cee ñàkk valeur ndax ku nekkantuwul yem foo war a yem buñ la forcé wul duñ la ëmbal duñ la teg ci yeneen gàcc donc tey nekkantu farandu dafa am ay conséquence te njëriñ li dañ néew néew lool nag la cay am njëriñ la cay am njëriñ su tuutee ba tuuti mooy ngeen sëy te su boobaa ci lislaam ngeen di nekk kon nekkantu moom du ma ci am wax ku ne na ko bëggee ak na nga ko xalaatee la mhm. foofu soxla neen ci xel yi ku nekk mhm. kenn moomu ci kenn mais buñ ñëwee ci bunti sëy man ci diine ji ma xam lay waxee ma leeral nit ñi ne duma ma ustaas mhm. ndax jàngalewu ma ci benn dara duma mufti attewu ma kenn jullit la jàng alquran jàng xaddis su may wax su ma wax fa laa koy dëgërale kon du ustaas la ñu invité mais jullit la ñu invité bu xam tuuti ci diinam mhm. li ma bëgg a wax foofu mooy règlement wu sëy ñett ñoo ko séq l'islam mooy constitution bi droit bi góor gi droit bi jigéen ji alquran yéen a ngi laajte xam nga dafa am laajte yoo xam ne du sax lu ñu war a laaj maa ngi ñëw may ma may ma temps rek ma développé ñaan naa la ko da am na laajte yoo xam ne du lu war a laajte ndax tey ki ngay waxal mu ne la fu ñu ko bind te xamut alxuraan wala soo ko tegalee kaamil moom mënut a ijji boole kooku warta laaj ci lu comme kan. non non damay ñëw ci waxtaan la ñu nekk. non wax da may may ma daaneel soo ma mayee ma daaneel. am na droit ne la masala nañ ko déglu rek nañ ko déglu nañ ko déglu. am na droit laaj la masala ñun ñun ñu continuer. li may wax mooy. doomi Adama bu mu mën ci doon. suñu la ne yàlla mu ni te yow suñ la indiloon kaamil mënoo ijji boole. Hmm. yow waroo laajte fuñ ko bind xam nga loo war a laaj. Hmm. keneen koo wóolu laaj ko bu waxi ko eh, nekkee benn nga jël ndax amoon niveau yegg ca barab ba leerlu lii lan la. moonte suñu addisu ñaareel ba suñu addisu wala ñuy waaraatee toog. non ñaareel ba ñun ñi toog ñaareel la ñaareel ba. am na koo xam ne war naa laajte parce que dafa bëgg lu leer. Hmm. da ngeen ma may ma développé fa may ñëw. dafa am koo xam ne war na laaj moom bu ko waxee benn mu am obligation de wala mu dem leerlu ci keneen parce que bu demee à la base mënul leeral boppam am na koo xam ne mën naa laajte parce que lu ko leer mooy soo ko ne texte sàngam moom dana la gëm moom gëmut la yow texte la gëm su pop bi waxee mën nga ko wax ci fu ko bii bul wax ñu toog fii dañoo la laaj non ñoo ñu laaj pour ñuy déglu mais pas ñu ni neen non ñu ne neen ñoo la laaj si ban. pour ñuy déglu waaw pour ñuy déglu fan lañ ko bind kon da ngay tontu wala ñuy déglu déedéet fan lañ ko bind ñun maa ngi ñëw de nga am na ñoo xam ne waruñu laaj li ngay dagg ni maa ngi tardé soo ma may ma développé rek ah, da nga tardé nag may leen ko mu développé vas-y donc tey mhm. yàlla wax na ci alxuraan ni mhm. ar rijaalu mhm. qawaamuuna ala nisaa li moom leer na ñun ñëpp dégg nañ donc donc su ñu ngi doon laajte fu ñu ko bind fii leen ko bind su ma fa yemee dina baax wala dafa laaj ma firi ah, leen ko bàyyee rek mu firi bu fekkee yéen ñëpp da ko bëgg a poser yàlla mu ne ça va être compliqué man mhm. maa jël góor dëgëral ko mhm. ci kaw jigéen mhm. maa leen dëgëral donc bi yàlla waxee loolu yonantu ne góor la yenn famille mu yenn ko teg ko ay wareef demal ci mbedd mi nga sonn mhm. demal uti mhm. loo am indil ci kër mhm. boo ñëwee koy jox jabar ji la yàlla booleel ngay jox mu solu jox mu lekk jox mu naan ndax sa responsabilité la du génn te tàgguwut la fu muy war a dem danga ko war a xam bu la neexee mu dem bu la naxaree du dem yaa am duraaw tii ndax yow leen dénk ci lislaam laa wax waxuma suma xalaat su la neexee du dem su la neexee yow borom kër gi mm. du dem ndax bépp fu muy dem su baaxee jaamu yàlla la jaamu yàlla ginnaaw waxi yàlla rek yaa ci topp donc mu ñàkk dem mm. loolu jaamu yàlla la ci ndaw si mm. moo xam compine la bu gënee garaaw moo xam sa dëj nga war a dem. bu demee di bàkkaar dëgg la. donc pour nga génn. jaamu yàlla la. fi ngay dem lu baax la. jaamu yàlla bi njëkk ci yow mooy sa jëkkër ne toogal nga toog. su sàqee dem na. su sàqee dem yonantu mu ne. malayka yi yàlla bind ci sàññam yàlla ñoo koy rëbb. ba mu dellusiwaat ci kër gi. Mhm. lii mu ngi ci Buxaari mu ngi ci Muxtaarul Hadis. ku jàng boo fa demee fekk ko fa. loolu yëpp su may waxee nii sa balaa may pare ku tàppee Google gis ko. parce que Google moom ñëpp lay tontu. Mhm. mais li ma bëgg a wax foofu bu fekkee règlement bi dafa yemloo jigéen loo ko ba pare sant góor mu nekk mbaamam di ko indil di ko teral mhm. Seydina Omar nee na li ñuy can jigéen ñi dafa bëri doomu yonantu tontu ko na ko yàlla tënkul ñu yonantu tënkul ñu Babacar tënkul ñu bul ñu tënk jigéen loo ko jox dagan su la neexee jox ko milliard sa affaire la yàlla tënkul ko mm-hmm. donc ku mel noonu yàlla fonkee ko noonu dafa am lu ñu ko teg exemple bi may joxe nga xam ne du ci sëy waaye exemple mooy looy mun a wax ba xel mi jàpp la ngay wax a exemple la mm-hmm. tey ñun ñëpp sénégalais leen ñoo yem ci réew mi ci benn langage mm-hmm. mais tey am na koo xam ne sañ na laa téye sañ na laa wax toogal sañ na laa wax doo génn réew mi. Uh-huh. sañ na laa teg benn place. même defoo dara sa bu la wóoluwul sañ na laa téye. loolu constitution moo ko may. non loi la. waaw loi même loi boobu ñu nangu ko nag. boo ñëwee ci diine. luwaa bi yem loo jigéen benn place. Mm-hmm. wax góor mu di ko teral. tey man bu ma doon am weer bu jot cent mille su ma jabar di am milliard maa ko war a jox su ma cent leen war a bokk mais pas milliard am léegi réglement bi téyeloo jigéen alalam mu def ko nu mu ko neexee même réglement moo wax jigéen bul génn tatàggoo bul invité ku ko neexul même règlement moo exige loowul jigéen nga imposé sa jëkkër àndal ak ma sàmba ma dem demba mais même kon compréhensif may na la nga wax sa jë jëkkër sa xalaat. dañ ko bind. fuñ ko bind ci hadisi Buxaari bi leen ko bind. non mais ba léegi. franchement man franchement. Ah, mhm. li ngay wax yëpp mhm. xam nañ ko. dëgg la mais. Mhm. man li ma laaj nga tontu ma si wax ma fan xadis ak fan lañ ko bind mooy li nga góor tere jigéen ne ko man kër gi lii ak lii bon fii dugg jigéen bi nga xam ne maison familiale am la si nga xam ne fa la dëkk moom ak ay njabootam ak yëpp. fan la ñu ko tër bind ne moom tamit amul droit ne jëkkër ji lii gis naa lu may gaañ mu fi dugg nga ne amul si euh, droit euh, lu yàq euh, sama njaboot lu yàq sama wala lu sama kër nga nga benn benn nga baal ma tuuti je pense que ci émission bi lañ ko lañ fi defee woon mu am ku ñu invité woon mu joxe exemple ne ci tàngu yonent bi dafa am koo xam ne waajuram bu góor je pense moo feebar mu tàggu boroom këram. ne ko dama bëgg a dem seeti sama waajur bu góor. Mm-hmm. waajur euh, parce que dafa feebar borom këram ne ko bul dem. bul dem. mu toog. waaw waajur bu góor bi mujjee gaañu. Mm-hmm. ñu woo ko téléphone ne ko sa waajur bu góor wàññeeku na. Mm-hmm. mu laajte waat borom këram borom këram ne ko bul dem. waaw donc demu ci nga xam ne moom mooy desewu papaam boobu. mu dem ci yonent bi. dem laaj ko. mu ne ko gis nga li nga xam ne mooy li nga déggalee sa borom kër. ci mu tere la. nga dem sa papa feebar mu tere la nga dem mhm. sa papa waaj moom moo yóbbu sa sa waajur bu góor aljana ah. donc c'est des trucs yo xamné ça nous apprend toujours ah, lolu xam nañ ko lolu moy réponse ci li nga wax ni légui c'est-à-dire il y a pas lieu que ñu bind ko fenn mais les vécus yi ñuy am ak dett li ñu am non mais tontu naa ko ci loolu sax mais ko maanaam soo laajtee fiñ ko bind ben wa tontu bu gatt bi moy mu ci bukhari yi ma wax la dëgg ña benn ñaareel bi mu ngi ci muxtaarul hadis soo demee vingt septième passe di nga ko fekk hadis man ci muxtaarul hadis donc wax la ko hadis bi ne jabar amul droit ne jëkkër bugguma kii ñëw si kër gi boobu waaw hadis boobu waaw yaa ko wax maa ko mooy jabar bind nañ ko amul droit ne jëkkëram bugguma kii ñëw si kër gi xam nga bind bu benn waa da nga may may ma expliquer la parce que da ngay laaj on a très bien compris ah. maanaam dama la bëgg a wan ne suñ ne timis bu jot jaaral ci mbedd nii mooy timis bu jot waroo jaar mbedd bële donc su ma ne timis bu jot waroo bul ma ne fuñ bind timis bu jot waroo jaar mbedd bële parce que mbedd yii leen la jaarloo. kanama fa jaarloo. Banora na nga def yaa ngi ci jàmm. ah non parce que man am ban dama ko tourné ci ci djé euh ñu jox la kàddu bi la xam ne je suis pas satisfait des c'est ton droit le plus ah. absolu. nañu ñëwaat ci yow cher nañu ñëwaat ci yow bàyyi ma dem ci bàyyi ma rek may ma rek ma dem ci prospère djé ñu bay la kàddu gi laataa may jëlaat spectateur yi ay ayca. dindi ko ma ne dindi ba mu set. Mm-hmm. merci. jigéen ah man de lima comprendre effectivement ci lolu moy mm-hmm. je le dis et je le répète hein parce que le vrai débat du caaginu amul droit ban ban ban mais soxna da ngay sol yéré sax moy le sa bi dafa froissé summi ko waaw ku am droit def observation si sa si sa si sa yére waaw mais à plus forte raison lui arsène seen ah wax dëgg yàlla mais dafa am façon waxine thank waxin manam manam bu modi di hmm. yow ni nga amee droit ci kër gi. waaw noonu la moom mu amee droit ci kër gi. d'accord mais bu mu nekk une situation de concurrence. su fekkee da ngaa dëgër bopp yow ku góor ki ndax ni muy dalee jigéen noonu lay dalee góor. may ma ma ñëw dama ne su dee da ngaa doon góor gu dëgër bopp goo xam ne da ngay defee maa tey. may ma tuuti ma ñëw père bi ñu la joxee kàddu yow say maam nga doon wax bàyyi ñun ñu wax ci thème bi ah. ma laaj de ni nga waxtaan moom laa la wax yow bi la wax. déet ak ku mu xaañ ak ku mu ku mu rëkk ak ku mu doon histoire. voilà moom laa la wax. très bien comme yow bi ñu la joxee kàddu histoire nga doon wax. ñun nag bàyyi ñu wax ci thème bi. ah ngi kay. ma wax ne mhm. c'est-à-dire. Mhm. li mu bëgg a wax mooy dama bëgg a wax ne. kii am observation ci yére boo sol yow. Mhm. à plus forte raison loo xam ne dafay aar njaboot. exactement. loolu kay kon damay jàpp ne xel war naa mën a nangu. échange que ki la yàlla booleel. wala ñii la yàlla booleel. ku ci nekk am nañ observation yu ngeen defante mm-hmm. mais li oustaz bëgg a wax mooy parce que bu ñu nangu ne bu ñu nangu ne le mari est le chef de la famille Benoît sax ne na nangul loolu moom nee na dina dem moom wax xale yu jigéen yi code de la famille nañ ci dindi la chef de la famille mm-hmm. nañ ko dindi mm-hmm. wax toog na fii ci plateau wax ko malheureusement ba keroog nga koy dindi l'homme est le chef de la famille le chef il donne des ordres il n'en reçoit pas il donne des ordres il reçoit des observations il reçoit des remarques parce que dama wax sànq ne la contrairement ak li li nga wax sànq ne d'accord ma ci c'est-à-dire man su ma su ma nawloo mul man sa jikko ba munoo teg teg tànk sama kër. Mm. du ma nawloo sa jikko en dehors de la maison. yow sax ñi ngay àndal ñëpp xam nga seen jikko. déggoo li ma wax. dama ne ndax ñi ngay andal ñep dañuy waxtaan rek xam seen jikko waaw ma jox la exemple jox ma exemple amna sa ay xarit waxuma sa ay xarit amna ño xamne amna sa ay xarit waxuma sa ay xarit ma ne dafa am ño xamne dañuy ñew sa kër yow ngay and ak mom 100 ans waaw muy labat sa jabar déglu ma rek muy labat muy ñew di wax sa jabar bo fa nekul chaque fois dama le bëgg non mais ma yegal yeggali bàyyi ma yegal waaw waaw muy labat sa jabar naka muy ñew dina sa jabar di koy cokkaas yo xamne sa jabar am caractère xam lu mu xam waaw bugul sen tas yeen ñaar ah jóge père s'il te plaît man lay waxal père père ki laa xam bëggul yéen ñaar seen tas jógee si moom mi ngi toog si kër di muñ muñ loolu père xaar ba yeggali muñ sa doxal jëkkër non non laissez le terminer laissez le terminer man ak moom très bien oh. Sophie ah. xam nga nee nga sànq am na ñoo xam ne da ngay génn àdduna rek ñu ñëw ñaan sa jabar vas-y Ben vas-y vas-y vas-y continue am na ñoo xam ne dinañ ñëw seen kër sa jabar ngeen ànd cent ans. daf ko yemale de. di koy yemale di koy yemale. ak boole. d'accord bu la neexee ne ak boole. ñu dem sa jëkkër. duñ ko ne carrément kii dafa am yoo xam ne dafa mooy indécent du yoonu ko am na jigéen yu mel noonu du ko ko wax mm-hmm. mu ne ko kii bëggatuma mu ñëw fi hmm. mu ne kii sa jëk sa gaa mu ne mu ne jëkkëram waxal sa kii bu mu ñëwati si kër gi na toog këram régler leen li ngeen di régler si sa jëkkër peut-être am na am na si droit boo xam ne yow waxoo ko exactement lu am. li ma leen wax dafa am waxoo ko exactement lu am. moom daf lay ne non non joxoo ma benn droit boo xam ne moo tax ma ne kii bu mu ñëw si kër gi. Hmm. te dafa am. jëkkër ak nga wax de jëkkër. jëkkër laa la wax. saxaati jëkkër di la doxaan yow. benn am na de responsabilité bu toll ne doo am sa jëkkër. man sa bàyyi ñii. benn mën nga doon toog leen. benn mën nga doon wax non benn mën nga doon wax. wallaahi soo leen bàyyi prospère bu ko ci balaa mu ñuy dóor. Ah pros ay ca

xarit bu mel noonu parce que sànq da nga commencé say xarit. Hmm. damay nag man du ma ànd ak ku ma xamul jikkoom. Hmm. d' abord mu leer. foofu dama la bëgg ne mënoo xam sa xarit yëpp si si si si si benn yow yaa mënul xam sa jikko xarit yëpp. mais man du ma waxuma pour man non non non non bàyyi ma terminer. pour ma wax loo man ne ma mënoo xam parce que su boobaa yaa ngi may yaa ngi may yaa ngi may yaa ngi may engagé yow. waaw dama lay engagé parce que sànq da nga ma engagé. waaw moom la la waaw très bien mooy li ma wax yow esprit concurrence boobu nga am. non yow yaa am esprit moom laa la wax sànq yaa ma waxoon nangam. xam loolu yi sànq yaa ma waxoon nangam. waaw ma ne dama ne dama ne. li ngay def mën naa ko. moo tax ma ne la waaw kon reconnaître sa bonne foi que ne si yow sa affaire concurrence la. non du yow man nag la ko. est-ce que mën nga tontu ci question bi kon ma wax ne ma wax ne pare ma sama gént ba pare ma wax la sa gént nga mel. voilà très bien waaw mais amoo courage ku wax ci ko grâce. vas-y foofu la problème bi nekk. mais dama ne man du ma ànd ak ku ma xamul jikkoom. ma ne la c'est faux munoo xam sa jikko xarit yëpp. waaw moom laa wax boo ma wax c'est faux moom laa lay wax loolu mooy ma wax la ne nga defaraat sa langage. du ma ko defar encore une fois. mais père non non non non. sa jikko xarit yëpp munoo ko xam. munoo xam ñëpp munoo xam ñëpp père laisse-moi avec peine s'il te plaît. allez-y père s'il te plaît. allez-y père bu déjà ñun ñun ñaar on crie. allez-y boo ci duggee du wax c'est-à-dire. non non laisse terminer sinon. mënoo ànd xam sa jikko xarit yëpp. si yaa ko mënul xam yow. mënoo xam lu muy xamul sa jikko yëpp. jikko xaritam yëpp. yow ko xamul yow man du ma ànd ak ku ma xamul man. Ah. man du ànd ak ku ma xamul sa jikko. xarit yëpp. tu loo yow xam sa jikko xarit yëpp. yow da xamoo ko. voilà yow bul tële dara ba yaakaar ne kenn mënu ko. Ah. su boobaa eh. yow sa bopp yow man bi ma xam yow. Ah. doo dugg sama kër maanaam maanaam man. soo xajul sama kër. Hmm. comme ni nga wax du ma ànd ak yow ca biti Hmm. maintenant ah. sama jabar hmm. su amee wu droit bu toll ne ma xëy fekk ku ma àndal cent ans comme tu as si bien dit ah. mu ne ma toogal ma toog mu ne ma diw bi kat bu mu tegi tànk ci kër gi ah. le minimum le minimum d'intelligence mooy lu tax lu tax parce que boo ñàkkee fay da ñàkk caractère ba man sama xarit ñëw di la cokkaas yow nga ma koy tereloo dugg ci kër gi sans raison. Mm-hmm. le minimum se de même ba war c'est-à-dire man ku ma yeb sax man prospère man. Mm. da fekk may nelaw. wallaay. yaboo ma yab gu toll tax ma di war ko man je ne suis pas aussi faible que ça bàyyil diw rek ma la football naa la ci biti la tax ma war ko bàyyi bu ma tolloo ci effectivement parce tu l'as si bien dit am na ñoo xam may ma tuuti may may ma tuuti parce que moom raison mu joxe moom raison mu joxe ñu ne mu teeraat yow doxoo mu teeraat yow yaay nokk ak ñaar yaay ñaar ñii kii sawet di mooy nokk du naan di tey dafa doxul ah, nangam ñi ma koy def harcèlement sexuel kërëm nangam nga ne ko bul dama ne encore une fois dama ne encore une fois li may wax ak li ngeen wax dafa bokkewul waaw dañu bàyyi prospère mu yeggale léegi mu daaneel ma jox leen ma ne encore une fois loolu àdduna lu ne am na fi père encore une fois. le débat du am na wala amul c'est pas ça le débat ñun dépassé nañ loolu. mais li am yow. da nga ma koy wax man eh, eh. man maa jël samay responsabilité ah. parce que dafa wax sànq ci biir waxam foofu la doon tontoo day bañ seen diggante yàqu waaye am na comportement bu mën a yàq diggante ak jabar c'est irresponsable. fa loolu laa wax man munoon <laughs> nëbbal man sama xarit bu lay doxaan sous prétexte que da nga bañ suñu diggante yàqu <laughs> fàtte sa diggante sa jëkkër c'est irresponsable ma ne waaw loolu nag man moom laa la prof man benn dama lay wax encore une fois télé laay waxee man ku ma yàpp da nga ma fekk may nelaw loolu laa loolu laa la wax man ku ma yàpp man da nga ma fekk may nelaw ma wax la loolu ba xam ko waaw très bien man ku ma xamul du ma ànd ak yow soit da ngay wax ka xarit wala nga wala nga wax àndandoo parce que boo nee xarit waruñoo bëri rek xarit la kooku du sa xarit kooku du sa xarit xarit kooku du sa xarit yow xamoo luy xarit xarit yow xamoo luy xarit yow ngay ànd ak nit cent ans ëllëg ñu ne la moo def du sa xarit du sa xarit te yéen a judd kon yow yaa am façon xarit yooyu yow yow yaa am façon xarit yooyu yow yaa am façon xarit yooyu man aw ma loolu man du ma ànd ak ku ma xamul il faut que ça soit très clair da nga yaakaar nandite nga loolu nga yaakaar yow d'accord rien à voir nag li nga wax nandite bu xamul sa xarit sa xarit non merci prospère comme tal lañu non merci yow il yow kan rek 88 628 89 90 maa ngi téléspectateurs yi papa dis Le qui? Les la wax Diego. ngi ñu encore une fois es téléspectateurs Allô non moi, moi Tu ci Yuhu Benoît Yuhu Benoît man Yuhu. yuuxu là man maa yuuxu wala kii est en train de crier Bakary Banana tu cries Ben tu cries allo kooku photocopie xarit la. kii après comme émission bi dootuma ko tudd. koo xamul ci ko photocopie. kii bàyyi naa ko du baax a. allo. ànd nag nit cent ans xamoo xam ci koom. yow yaa yow yaa capable xam ci koom. bu ko topp. yow yaa yow yaa capable loolu. doo yàlla man ku ma àndal xam naa la yaay kan. yàlla rek xam lu leer laa lay wax. borom bi rek borom bi rek xam sa jikkoy xarit. du calme. Jey maa ngi lay jox maa ngi lay ñaan jox leen ko ndox mu naan. Jey Allô S'il te plaît, d'accord. Merci beaucoup. Oui, beaucoup on n'a qu'à continuer père allo. père 200 hein? ans. d'accord ah, ben, on a entendu 88 628 89 90. Salamou a Salam c'est pénible quand même. Mm-hmm. allo. sëñ bi ma ne man la Ousmane Sylla. waaw ah Ousmane Sylla Sylla na nga def. maa ngi sant yàlla bu. Eh, teewlu nga wax wi bu baax. déglu naa ko bu baax mais man dama bëggoon poser benn question Benoît. waaw vas benn question rek pour poser ko. ah. am nga mooy lan. ah. nga ànd ak sa xarit pendant 40 ans muy ñëw sa kër. waaw. papa Benoît la jabar jékki-jékki waaw bëggatuma kii mu ñëw sama kër. waaw balaa may wax kooku balaa may wax sama xarit bi dara damay laaj sama jabar lu tax nga ne kii bu mu ñëw sama kër. waaw waaw. parce que nit ki Benoît il faut que mu xam ne ça veut dire père. Fall. xaaral père man lay waxal. yow. Ah, waaw non waxal danga may laaj. non yow lay laaj. tontu ma si wax. non dama la ne. ànd nga ak sa cent ans quarante ans taxul nga xam lan moo nekk si ginnaaw xelam. dëgg la nangu naa la. waaw. waaw nangu naa loolu léegi bu defee li ma wax y a des yoo xam ne. dinañu am piis <laughs> te dañuy am responsabilité wax nañoo ak moom. ne lii ak lii ak lii ba waa ji dégg. waaw mais du ñu am fit wala du ñu dem seen jëkkër si jëkkëram. waaw dégg nañ déglu nañ déglu kii s'il vous plaît. non kon mais da ngay résumé rek mais nañ ko déglu. ok pour man. li benn di wax. du jigéen bu baax ah. parce que. loolu du jigéen bu baax man mënu ma am copain buy ñëw sama kër. waaw ma yaakaar ni kooku dafa baax ku nekk di topp sama jabar sama ginnaaw. waaw déglu ma bon waaw. xam nga lu tax ma wax loolu. mooy li ma doon wax. jigéen des fois foyer familial am na droit ne jëkkër ji kii bu mu fi ñëwati rek yam fa. jëkkër ji nangu non loolu dafa mel da nga mën nekk di imposer. imposer la. te fa lay doon 40 ans ma jékki-jékki na la kañ kii bu mu fi ñëwati am na lu tax. Euh, ah, Benoît laisse laisse le wax mu wax gis-gisam aussi. man moo ma laaj ñuy waxtaan. waaw bàyyi ko mu wax gis-gisam nee na mën na koo wax ñu ne ko waxoo dëgg. m'arrêter comme ça. nee na mën na koo wax. Benoît il faut nga xam ne si teg quoi. ça veut dire ñun dañu dañu lay woo dañu wootee pour xam nga. waaw ah waaye ñu mën a changer quoi. exemple mais boo fi nekkee di énervé wu amul benn jëriñ. non écoute écoute waxal te bul ma wax énervé. jox ko mu naan mu ko waxee jox ko mu naan moo gën. waa ñu waxtaan vas-y. jox ko ndox. kan man. waaw yow. <laughs> yow kañ la ñuy jox ndox. Eh. wallaay wallaay benn wallaay benn ay ci 88. non benn tey yàq na xelu ñëpp ñëpp la yàq seen xel tey. te dafa am waaw waaw dafa am. wallaay wallaay barka borom ah ah ah da ngay gune rek. pause s'il vous plaît. wallaay da ngay gune. da ngay gune te doxoo. wallaay da ngay gune. barka borom Tuubaa gune. lii de kii de xam nga ne làq mu ko fenn te du ma ko waaye kii waxam ji mu wax. Bakary Souleymane lu mu wax. oui waaw yow rek la déglu. al waaw léegi bu ne bu ne arrijaanu xaw a mun a alal nisaa yi loolu dafay dafay dugal lépp xamante ne góor war na fa taxawu jigéen rek. Mhm. responsabilité ba alquran maanaam góor la ko jox. Mhm. mu teg ca nag bi ma faddalallahu baadakum ala baad dafa am loo xamante ni góor la ko alquran góor la ko yàlla jox xamante ni la ko yàlla jox. Hmm. comme ni mu ko waxee góor la yàlla wax ne ko demal nga génn dem uti ñàkk ñëw andi jox ko. Hmm. wodd ko dëkkan ko koo ko ko kon loolu alquran la kon bonuwaa bonuwaa bu nee bu dee waa ji fan la ko alquran bind foofu la ko alquran bind alquran àtte bu dee ñëw danañ rek tere nañ nàngam ndax nàngam jooju nag lépp lépp lu ci mën a dugg rek maanaam day dugg ci biir ay ca ñu jël keneen 88 628 89 90 salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi noo def mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax man maa woote woon sànq mu coupé quoi. ayca ñu ngi lay dégloo. Ousmane si la. la Ousmane man nag euh, Benoît maa ngi jégalu bu fekkee wax naa li nga xamante ne dafa xaw a voilà. d'accord non non non on est ensemble. donc euh, da nga da nga war a xam ne rek si émission nga nekk donc am na am nga droit joxe point de vue. man tam ma am droit joxe ci sama point de vie bu leer. voilà parce que man ba léegi xam nga instant y' deux heures de décalage entre yéen ak ñun. maa ngi toog sama biir di leen seetaan. Mhm. man émission dimanche du ma ko mos a raté xam nga lu tax. Mhm. ngir paa bu toog nii. dëgg la. pa pa pa Ngone la pa. waaw seen bi waaw. Père May Ngone. am na ñu bari ñu ngi toog ndik man tamit. ndeysaan. parce que pa bi xamalu sax. ndeysaan. ñun ay xale lañu quoi mais daf liggéey lu bëri. daf nekk di yeesu lu bëri lu tax ma wax loolu. parce que ñun fii lañu nekk mhm. ah. mu nekkee du dund. Ah. yoon bu ñu nekk di jël. Ah. yoon boobu du yoon bu baax. la ilaha illallah. France laa nekk de sama jabar mu ngi nii toog sama wér di ma déglu li ma lay wax nii xoolal ñëw ma di di rafetal damay wax lu leer. dëgg la France laa ça fait quinze ans France. wallaahi nee na soxnaam bi ci ginnaaw. mais man. Uh-huh. am na jikko yi nga xamante ne moo nekk même même France fii. Uh-huh. àdduna France fii ñi ngi def li nga xamante ne ñun ñu ngi leen di copier xam nga da ngay li nga xamante ne dafa c'est positif li nga xamante ne mun na la jëmloo kanam. waa góore waay. mais li nga xamante ne daf lay delloo ginnaaw ñun suñu pàpp yi man sama pap sama pap ak sama yaay ku jur sama pap ak sama yaay dañoo suñu sëyee benn ñuy benn benn kennee àdduna. Mm-hmm. parce que nit ki boo ko takkee c'est pour le pire mais boo leen nekkee fi di wax ne jigéen war war na yem ak jëkkëram ci biir kër. wax waxu daanu saret la. léegi ku fi wax loolu. xam nga bàyyi leen jàmm bàyyi bàyyi leen jàmm non bàyyi ma may ba pare Benoît. non da ngeen di bàyyi jàmm nit ki bu wootee xam nga. bàyyi leen sama di dañ leen di seetaan chaque dimanche man bu may seetaan émission dimanche bi ngir pangoo ni bu toog nii moo tax may seetaan. mais wax bàyyi leen sama nit ñi bàyyi dama koy xoolee ni sam pap d' accord mais wax loo ñu lu ñu wax. ay waay bàyyi leen sama wax leen. ci moom laa lay wax dama leen ne euh, yow sa jabar mu ñëw mu ne la mu ne mu ne xoolal dama bëgg a kii bu mu ñëw ci sama kër. yow nga yow da ngay d'accord noonu waaw eh, nga ne sa copain bi bëggatuma nga ñëw sama kër parce que sama jabar nanguwul mais li ngay wax nii taxawul bun waaw waaw pour yow mais posé ko question lu tax nga ne sama jabar bu bu mu ñëw euh, sama xarit bi bu mu fi ñëw kon yow xamoo lu ñuy wax si il comprend très bien posé Cheikh ab kii nu mu tudd xaadim na Cheikh Ahmed ndax jigen amna autorité wax jëkkëram tamit safaan bi ñëw sama kër aw ci droit mu neex leen juste c'était juste un exemple on va on va on va on va évoluer parce que émission bi jeex allô allô oui allô dem nee na mu neex leen mu naxare leen du calme. nañu wax loolu ñu wax kenn xeexul. nañu wax loolu ñu wax non si nañu wax loolu ñu wax. neex na xarit dinañ ci wax. non mais fi kenn geerul maa ngi ñëw ci ñëw bugguma kii ñëw ci ñu jël keneen. allo ci góor bi amul droit wax avec des raisons. 88 628 89 90 ñu jël téléspectateur bi salaamaaleykum. pas kenn rek mooy wax droit. allo oui. yéen ay kan. Ah. waaw sëñ bi na nga def. moom de ba ngay xuloo ñun ñooy ñi ngay partagé plateau fooy wootee. man Touba. est-ce que nuyul ma sëñ Mountakha Bassirou. jàngat nga waxtaan bu baax. dégg naa bu baax waaw. ah ñu ngi noonu de lan moo ci sa gis-gis. waa Réginelle loo xam da ngay recensé auditeurs yi téléspectateurs Sen TV yi. am ba téléspectateur aleykum salaam sang bi. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñu ngi lay delloo ziar bu wér. waaw Père Mangone ñu ngi leen di. Fall di rafetlu waxtaan bi bu baax a baax. ndeysaan fooy wootee. man maa ngi wootee Dakar. waaw sori woo yow. waaw waaw. jàngat na waxtaan bi. waaw seetaat naa ko maa ngi koy teewlu bu baax ah, waxtaan wi kii na de tàng na de fi mu ne. waaw tàng na. waaye waxtaan yu mel nii day baax dégluwante di ci am da ci am solo lool. Mm-hmm. comme ñu fi toog xëy na ku ci nekk am na ci côté bu mu taxawee. Hmm. te am na ñuy déglu it ñu bëgg a jëriñu. Hmm. waaye ñi bëgg a jëriñu. Hmm. Ah, yéen ñuy def waxtaan bi boo leen déglu woon te wut ñuy déglu duñ mën a jëriñ. dëgg la tuub nañ ko. tey day baax ci ah, yu mel ni buñ ci invité koo xam ne wax ci côté boo xam ne côté diine la day baax tamit keneen ku xam ci diine toog pour ñuy mën a jox joxante ay kàddu. Hmm. waaye comme ki dend ak moom li muy wax euh, moom amul ci alxuraan ndax Cheikh Ahmed ba mu ko waxee aaya bi mu ko wax muy ar rijaalu xawaamuuna ala nisaa aaya boobu moom li muy wax yëpp ñu ci aaya boobu hmm. kon baaxoon na ku xam li Cheikh Ahmed di wax hmm. toog bi waaye yéen xam ngeen li Cheikh Ahmed di wax yéen waaw baaxoon na ku xam li Cheikh Ahmed di wax waaye moom moom xaw ma Benoît Benoît la xaw ma moom li Cheikh Ahmed di wax bu ko waxoon aaya wala at bi ko wax xamul version bi buñ ko li mu ko wax buñ ko ko joxoon mënu ko wax fi mu toog. ma ne d' accord ma ne. dafa ay non non non non papa nañ ko déglu rek mu pare ñu génn parce que seen émission bëriwul aussi. s'il vous plaît mënoo leen ko dugg su waxee rek ngeen bëgg koo ngeen bëgg koo tontu on laisse passer amul problème. mu nekk loo xam ne d' accord mais tamit li ma ko laaj li ma laaj na de. man li ma ko laaj dafa am te. père Mbaye Ngoné Fall ay papa dimbali ma ngir yàlla nañ déglu téléspectateurs yi. ndax ndax ndax exemple bi ma ciy joxe muy bi gën a gàtt jàppe naa. exemple bi ma ci joxe mooy. bi gën a man daal dootuma wax. ñemeetuma wax. ku fi dugalee di ma ko wax fan lañ ko bindee ak naka lañ ko waxee. lu ma ak du accusé ma jëlal man kay waxatuma. mais yow mais yow mais yow li nga bëgg fan lañ ko bind.

alhamdulilah. jërëjëf ndeysaan sama mbokk yooyu. maa ngi tudd Emo Ndiaye. waaw Emo Ndiaye na nga def. Sénégal les hommes sont trop nerveux. Emo Ndiaye Emo Ndiaye Emo Ndiaye. ah Emo Emo Ndiaye Emo. na nga def xanaa sa mbokku Gambien la. ci suma xarit bi. ndeysaan. non non non bu ñu wax mbokki Gambien ñun Sénégambien la ñuy wax. Sénégambien. waaw. Ah. waaw ba tey su la neexee sama mbokku Sénégambien. waaw waaw ba léegi ma wax mu gaaw rek euh, dama doon bëgg pour ziare Cheikh ah, Ahmed Cissé. d'accord mooy président fédération football bu Gambie di kontaan ci moom di bëgg ci moom. waaw jërëjëf Cissé. waaw waaw waaw waaye euh, li ma bëgg rek mooy euh, xëy na euh, waxtaan bi kenn ku nekk am na koy taxaw. waaw. waaye bëgg naa ñuy déglu wante rek. dëgg ñu ngi ñu ngi njaaxal suñu nelaw pour déglu pour jàngat ci mbir mi. dëgg la. xam nga suñu ootee nit mu ne am na jox na la lu muy wax. waaw. waaw ñun dañ ko war a déglu ñun ñëpp su ko defee. Ah. kenn ku nekk wax sa idée ñun tamit ñi ñuy lu comme man léegi maa ngi wax ak yéen yéen ak maa déglu. waaw waaye yéen a ngi foofu kenn du déglu wante kon ñun duñ mën a njëriñ. <laughs> xam nga bëggoon def pour ñun tamit euh, ñuy dégluwante su kenn waxee idéem ñu bàyyi ko keneen wax keneen wax su ko defee ñun ñëpp ñu mën a dellu ci baat am am am am ci jàngat ah, dëgg la dëgg la dëgg la ñu ngi leen a ñu ngi leen a bu baax di leen seet mhm. waaw ñu leen di leen ñaanal leen ko yéenee jërëjëf Emo Cheikh Amath maa ngi laa nuyu spécial suñ booy ah? si waaw suñ booy si jërëjëf waay jazakallahu khairan kontaan nañ baax ñu ni waa Gambie bu baax ak seen équipe nationale bi yàlla baax na di leen si yéen kontaan ci yéen bu baax ñu na waa Gambie yëpp dinañ ko dégg père Mangone su ma la mënoon a tagga dinaa la tagga nag waaye xam nga dinaa dinaa ko jàngee ku non man dama bëgg a man dama bëgg Dabo man maa moom Gambie ñëwal ci man dama bëgg ci Tulo Dabo père kii su la na demal demal ah man maa moom Gambie ñëwal. maa ngi ñëw Gambie dinaa ñëw. mooy mooy mooy DTN football c'est ça. <laughs> moom mooy président fédération football bu ah, comptable la auditeur la ci télécommunication bi gën a mag Gambie. muy loolu ah. kii bu la wooyee da nga a dem. waaw waaw d'accord kii. mooy chéri chéri Emo chéri. E. Emo waaw. Yaasé Ndiaye moom benn jabar rek la xam ne moom mënul wax. ndeysaan ah, dafa dafa nekk jabar. a baax. bu jabar ji ne bu ci dugg du dugg. waaw moom benn bokk kaa. Ah. ayca kontaan eh, waa. Eh, emo am la ordre man ci benn jabar laay waaye ma ne la yow moom bu ko jabar ji ne bul génn du génn. <laughs> Ah? yow mii bu lee jabar ji bul dem doo dem gan. Ah! waaw jàppal ci yaas <laughs> emo jàpp ko bu gan di waaw merci. jërëjëf ayca jërëjëf nuyu ñu waa Gambie bu baax baax. ñu jëlaat ok emo ñu jëlaat quelques téléspectateurs laataa ñuy tàggoo dem ba beneen yoon di jégalu encore une fois. ci suñu téléspectateur gis-gis mooy demee noonu des fois gars tàng rek. mooy loolu te Benoît yenn saa bu ñëwee te reerul problème yi lay andi day tàng man sax dafa may taakale naan ma naan ma ciy nul di ma sànni loxo naan bari waay la may def de ay tudd ma ciipatu di ma xeelu li may muñ li may muñ fii dafa metti wujjee sax ko gën a yomb waaw nee na ne ma ne ma ni yaa may eh may dagg naan da ngay kii yow papa Fall bëggoo ko la da ngay daggaate waaw fii maa jël de pas yow D'accord Oui. On est d'accord Oui, on est d'accord. Voilà, Allô Allô non ah, Bakary Allô? non non non non non non non non non non, non, non, non, non, non, man ndar laay woote. ah ndar ndar ndar waaw niir ma ñeg ñu ñoom seen bu sekk ak ñëpp ñu toog ci plateau bi yëpp. ñëpp waaw. di defal mention spéciale à Pester. waaw waaw waaw ndeysaan. pour son élégance ak son pouvoir d'écoute. ndeysaan merci beaucoup. parce que vraiment c'est un gars boo xamante ni il a capacité d'écoute. qui ça. Prosper.

ñuy wax naan nga am xarit bu ñëw sa kër. ah ba soxna bëgg la tàqale moom tere la ne la bëgguma kii mu ñëw sama kër. ah. Euh, ba mu waa cité benn exemple la nga am sa xarit sax muy labar sa jabar ci suuf. Ah. Mhm. te yow yëguloo ko loolu lépp mën na am. Mhm. ah li bon wax. <laughs> mais loolu mën na nekk aussi koo xamante ni yow mën na nekk si frère. Mhm. mën na nekk sa frère. sa frère. waaw waaw maa sa jarbaat soxna sa biir sa sa baay di la jéem wala sa jarbaat. am na si diggante papa ak doom. Mm-hmm. la ilaha illallah. am na si diggante. Oh. d'accord d'accord ayca ñi ngi ci ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ciy jéggalu ah. ñi ngi recevoir ay message mm-hmm. comme quoi que depuis un moment. depuis un moment c'est devenu un peu désagréable de suivre cette émission mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. d'accord donc on va en tenir compte parce que nous sommes en tax on un peu euh, donc euh, on s'en excuse parce que si nous a tamit c'est pour que nous nous la télé n'est pas facile c'est vrai nous ngi des petits di ci jégalu bu baax et on espère que dinañ mën a incha gérer tout ça parce que c'est très important télé dégg la te boo déggul amatul njëriñ mm-hmm. et c'est pas c'est pas intéressant de suivre une émission des énervé tu vois c'est pas c'est pas c'est pas intéressant donc n'y ngi tout, di ci jégalu bu et inshallah mm-hmm. ça je vous le promets que l'émission prochaine inshallah allah loolu de dina changer inshallah allah ni ñi ngi ni ngi mën nañu am moment de de de show mënut parce que émission bi moom loolu moo koy démarqué sax loolu moo koy euh, diffé moom tax mu différent ak émission yi mm-hmm mais c'est vrai que quand c'est tout le temps c'est pénible donc on tenait vraiment à le dire et à nous excuser auprès de ces téléspectateurs qui nous suivent tout le temps ay nous ñu euh, deux à trois téléspectateurs papa rapport di Oui, ba beneen yoon yaa ngi c'est ba léegi salaamaaleykum recensé ma kenn allo maaleykum salam, sëñ bi oui mm-hmm. waaw Allô bi Allô? Allô, oui sëñ bi na def. maa ngi fi ça va. alhamdulilah fay wootee. Euh, Paris laay wootee. ah naka waa Paris. ça va ñu si jàmm alhamdulilah. kooku la Père Mangone. waaw maa ngi de. waaw yow moom kontaan nañ ci yow parce yow looy wax ñoo ngi ciy jàng. parce que comme li ñuy wax démb mooy. tey bu du woon démb du ñu wax tey. wallaay démb kon yow looy wax moom sincèrement moom ñun ñoo ngi ciy ñoo ngi ciy jàng ñoo ngi ciy jëriñ. Mhm. sincèrement quoi. Mhm. waaw dégg nga coow li léegi ci kanamu télé bi ah. dégg nga coow li léegi diggante Benoît ak Prospère. waaw dégg naa coow bi entre Benoît ak Prospère mais Benoît moom lu mu koy wax mooy Benoît moom lu xaw ma fu muy tax fu lu muy wax lu mu koy kiiwee formulé baaxul tax moom. ah allo. li yàlla jig ba noonu ni nga xam ne moom allo dafa dem. demul mu ngi nii taxaw di wax ah, waaw. waaw Père yaa ngi lay dégg. maa ngi lay dégg.

allo waaw loo wax ci question bi mu posé mon Ben. Mon ko. ban question la posé mon ban question la posé nga posé waat. ah <laughs> Ben posé une question hein?

bi na nga def. waaw ah, sant yàlla alhamdulilah. fooy wootee. man la Ousmane Sylla ba léegi. ah Ousmane na nga def. maa ngi fiy sant yàlla. Sylla jërëjëf Sylla. voilà euh, Benoît. waaw mi ngi lay dégg. waaw dama ñëwoon rek pour naan bu Benoît bu mu mer quoi na xam ne rek ci télé la nekk. waaye yow ngir yàlla do sa exemple la biir Sénégal tu vois. <laughs> ay benn. exemple la biir Sénégal te xam nga rek nit ki boo bu ñu demee ba teg la si pour ngay wax xam nga danga war a nangu critique yi. dëgg la d'accord. parce que daf. te tey moo teggi natt bi sax nag day nangu. man nag ku la sopp laa nag ah, franchement mais. critique pour man star star émission bi. paa bi la quoi. <laughs> est-ce que <laughs> mon ami. oui mon ami. moom mais kenn du tàccu. ñoom du ñu tàccu. ah <laughs> tàccu la ah tàccu la soxoree dëgg la dañ la soxoree. li ma leen yuux ne leen du ngeen tàccu moo tax muy doog a tàccu. waaye ay naafeq ah, ah. waa allo. ay naafeq. ah allo. père Fall. billahi wallahi taala yaa tax may seetaan émission. ndeysaan ndeysaan kontaan naa loolu waay. barke rasulullahi laa la lay wax nii kenn toogul ñu fa toog ñi yëpp yow donc yaa may seetaan émission bi. Oh. ay waay si la kontaan naa ci yow lool. xam nga lu tax waaw. parce que danga may yee ci lu bëri. da may yee ci doomu Adama nu mu war a doxalee ak jabaram. waaw waaw. loolu de am na. parce que adduna bi. Hmm. dafa compliqué tellement que bu ñu naree copier français yi. France la nekk nii bu ñu naree copier billaahi wallahi suñu Sénégal bi dina dee day tas. dégg naa am na ay góor ñu nekk foofu France yoo xam ne daanaka dootuñu dara. doo ñibbisi. mais mais wuy ma. waaw. seen émission bi même bu fekkente ne sa doo leen dégluwante sax. mais émission bi ñëpp a koy seetaan xam nga lu tax. Ah. parce que parce que buñ ñu koy seetaan dafa mel ni ñu ngi biir Sénégal. wallahi. dafa mel ni ñu ngi ñu ngi déglu suñu papa bu nekk di wax. ndeysaan. ça reflète la réalité en fait. mais li ma lay wax rek. Ah. Benoît. Ah. Benoît ne décourage pas. c'est vrai peut-être que ce euh, niveau ak niveau bas bi pas bi niveau bu ñu wax def. background paa bi dafa bi moo graaw mënoo ko suivre. waaw dëgg gouvernement dafa war a mu tey. ah eh, bu doon force bu ko déglu doo xam. allo bu déglu ngeen de coupé coupé. maa ngi leen di gërëm di leen sant. coupé coupé waaw kontaan naa trop ci émission bi. jërëjëf Sylla kontaan naa trop ci émission bi Benoît. bàyyi leen jàmbur sama. Benoît ci kaw ci kanam mais dégg nga. ñu tapaala ndey ñoo bokk baay Sénégal moom mel nii quoi. jaajëf Sila asalaamaaleykum monsieur Sila. monsieur Sila waaleykum salaam Sila du la déglu xam na ni bu la dégloo nga wax fi loo xam ne xam nga kenn du la fi déglu. ayca Bakary nekk nañu Bakary papa ñi ñëw yëpp daal leen nekk say fans. benn fans bu ma wax ah ayca. mën na am am na fi ab jigéen boo xam ne nag. ah mais kooku rek nga ragal kooku rek nga jàppee muy nit. te noonu nag lu ma indi eh. ñaari. wuyul wuyul kooku rek nga ragal allo Bakary. Thiamet. aleykum aleykum salaam sang bi. Euh, sëñ bi yàgg na nga dañuy wax tuuti ci euh, problème bi sëñ boobu doon wax. waaw. yonent bi dafa wax ne képp ku fiirul rek doo dugal janna. mu ne képp ku. yonent bi nee na. Ah. ku fiirul doo aljanna. ah. waaw ku fiirul waaw. ku fiirul loo dugal jann waaw. Hmm. mooy fiir d'abord. <laughs> mooy lépp luy dugg sa biir kër. Ah. ak luy génn sa biir kër da nga ko war a xam. da nga ko war a xam. ku fiirul du dugal. wallaahi. lépp luy lan mooy fiir fiir mooy lépp luy dugg sa kër. ak luy génn da nga ko war a xam. da nga ko ki lañ ko jox. waaw. te itam bu fekkee ne bon waa dafay laaj lépp lu ñu wax ci diini rek mu ne fan lañ ko teg xam nga lu mooy na hmm. sun sunna mooy na dafa koo xam ne yonent bi daf ko wax na am loo xam ne dafa gis saxaaba yi def ko mu noppi ci waaw am loo xam ne bay dañ koo def mu saxal ko hmm. kon donc lépp lu ñu yonent bi saxal mbaa mu wax ko mbaa mu jëf ko ah. loolu la ñuy wax sunna hmm. kon donc du lépp lu nekk rek da naan da ngay teg sa baaraam ne lii la si yàlla wax ou lii la si yonent bi wax. dafa am am loo xam ne ay règle la. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ayca dafa mel ni papa ko moom dem na. une heure euh, une heure passée de neuf minutes sur euh, Sen TV on va devoir ñu euh, taxaw fii parce que depuis vingt et une heures trente ñu ngi. ñu ngi def ba xam dama gëmmentu. da ngaa bëgg a dem nii dellan la. parce que soo ba léegi maa ngi liggéey. ñaara ko yow léegi yéen la waaw. muy jëkkër ak jabar waaw. muy jëkkër ak jabar waaw ben sa communication moo kii ni ngeen sokkee jëkkër gi waaw ne kër gi waaw si jabar gi mën naa nee na nga arrêté ñàngal bi nga wax normalement waaw bu mu fi dugg bu mu fi dugg jabar ji nga xam ne moo nekk si kër gi di sëy uuf njabootam bu ne jëkkër kii ak kii bu mu fi dugg bu mu fi dugg man de gis naa jabar ju taxaw muy fu ko bëgg a jóbbu ak fu ko bëgg a ak bu ñu toogee wax exemple boobu sax moo ñu mujjee sonal finalement man yóbbu franchement je pars dans un terme boo xam mhm. dépassé wu ma loo xam amul fi ci aduna bi. xam nga lan mo bon Sénégal ñu bëgg a sukk si benn affaire sukk ci né go rek a wara dogal ci biir kër gi. ah léeg-léeg jigéen gis lo xam mané jigen bu ko nexé na jëkër ji ki bu mu fi ñëw té si bo amé compréhension. di mu ànd ak sa jabar. ku mu neex looloo am ku mu neexul man loolu lay dogal.

Hmm? c'est ça da nga da kii trop da nga aju doo dégg sama noppi oh, xam naa mi ngi est-ce que amoo est-ce dafa am lu mu wax lu am sens quoi Sénégal dañuy waxtaan bu ñu indee diine ñu ne tëju na hmm. diine dafa am ouverture hmm. man maa ne jigéen dañ ma wax fan lañ ko bindee si alxuraan que jigéen amul droit wax jëkkëram kii bu mu ñëw sañu kër kër ñoo xam ne fa ngay ba léegi waxuñu waa amul droit obligation waruñu ko obligé la ñu ma ne la bu gisee lu jaar ci kër gi obligation la mu wax jëkkëram kii bu mu fi ñëw te jëkkër si ànd ñoom ñaara bokk kër gi ah d'accord d'accord merci ay xajjale waa jërëjëf jërëjëf men jërëjëf sa anniversaire lu jug mais waroo énervé pour énervé yow laay jéem a nekk di duutanteeg ay affaire mais li kooku doon wax sànq amul de waa xaaral ñu jël kee

aussi. bu énervé waay. on t'aime bien on t'aime bien aussi. on t'aime bien on t'aime bien. aussi. ok on t'aime bien ne change pas. on t'aime aussi ne change pas. dégg nga ne prends pas part. d'accord déglu rek déglu ma rek déglu ma rek. Prospère Dieye maa ngi ñëw ci yow. Silla nee na moom France. benn te ma nga dund France. benn on t'aime bien xoolal bu ñu copier français yi mu nga dëkk France. xoolal xoolal bul topp ñi. nee na bul découragé quoi bul topp ñi bul topp ñi bul topp ñi garaaw. amul problème amul problème léegi incha allah bu ñu revenir euh, bu ñu revenir mercredi. on va essayer de corriger tout ça je sais que vous da ngeen ma si dimbali. Mm-hmm. parce que yéenay sama team d' accord. Mm-hmm. yéen kat ñun ñëpp prospère ci ka bokk. ñun ñëpp laa wax. je vous le demande solennellement yéen ñëpp ñu jàpp ci comme ça. émission bi gën a jëm kanam. parce que loolu man xam naa ne loolu mooy seen fierté ni ngeen ko bëggee sax man mooy loolu euh, yéen a ma gën a nekk ci émission yéen ma ko gën a moom donc soo leen ci jàppee rek euh, day day gën a neex. Ah, voilà Chamet ayca. waaw dina dinaa bëgg a leeral ne. Mm-hmm. yow sa ñu yóbboo lii yëpp yow. dina dinaa bëgg a leeral ne règlement fuñ jox droit kenn. bu ñu xoolee ne kii moo am droit fii xool ko rek dafay mel ni règlement ba baaxul fekk ku ne dafa am lu mu moome islaam musta tuutil benn jigéen rawatina jigéen buñ takk ndax dafa am qualité yooyu am pour ñu door laa takk mooy da ngay nekk jigéen bu mat jigéen léegi bu ñu la takkee ba teg la dafa am rôle boo am nit ku nekk fu sa droit yem fa la droit keneen dooree mën ngaa gis luy yàq ci kër gi nga waxtaan ci nga génneel ko sa loxo am na foo am droit ne yow yaa koy génne doo xaar kenn loolu yow la sa droit yow mi nekk ci kër gi mais am na foo xam ne bu fa yeggee da ngay dem ci borom kër gi wax ko yow sa xalaat ak li nga gis moom mu décider en tant que chef de famille ndax moom leen dénk responsabilité bi fii ku fi gisoon sàcc muy sàcc sañoo ko dóor sañoo ko rey am na koo ko war a jox koo ko àtte ko def la war ca moom mooy ñi amee loi te pourtant sénégalais nga te sa alal la doon sàcc. Mm-hmm. donc règlement foog ñu koy mën a comprendre mais suñ daggee rek xuus ba ci biir ne lii moom c'est pas normal mu ngi mel ni tey man may romb. Macky Sall romb ñu taxaw pour nit ñi jàll ñu ne waratu am parce que ñu ñëpp sénégalais leen mais rôle bi mu yenu ci Sénégal man yenuwuma ko moom dundam ci biir Sénégal moo ëpp doole suma bos. ndax moom mën na waxal Sénégal te man aw ma qualification bu Macky Sall bu bindee mën na bindal Sénégal bu signé Sénégal yëpp a signé liir bu juddoogut ak bu dee da koy concerné. loi moo ko ko may loi bi ko may Macky Sall bañ man koo may sénégalais di ko garder di ko saluta di ko yëkkatil drapeau ko wàccee pilimam gën a important suma bos loi wu diine moo jox góor cër boobu neex loolu la na yi lool la mm-hmm. ku ne nag sa xalaat yaa ko moom l'islam daf koy respecté amuñ ci problème mais bu règlement wu l'islam taxawee lislaam la du xalaati Cheikh Ahmed wala bu Baye Niass wala bu yonantu sa ça compte pas l'islam atte yàlla la mm-hmm. léegi su ma daanelee ci loolu leneen li may ñëw mooy relation sëy dama demoon benn congrès mm-hmm. in Abuja ñuy waxtaan benn jigéen bu nekk Amérique mu ne sëyi jullit ñi mooy gën a gaaw a tas ci àddina mm-hmm. li ñuy tas moo gën a bëri mm-hmm. te li jullit ñi di tubbi di bàyyi lislaam moo ëpp luy dugg ci lislaam mm-hmm. ci jamono bii ñu toll mm. mu ne ndax xale bu jigéen loolu moom su ko waxee man damay confirmer ci aada bi ma bokk muy wolof fana fan da ngay judd den lay jàngal togg jàngal la raxas jàngal la boo gisee règle jàngal la lépp ci beneen yoon suñu jàngal la cuuraay mais duñ la jàngal lan mooy sa àq ci diini fan la la lislaam fum yemloo fu mu la fan la la nangulee nga wax fu mu la ko nanguleewut ban moment nga war a boole ji da ngay xuloog sa jëkkër léegi woote téléphone sa yaay di dégg xuloo bi lu mu yàqut du ko defal léegi jigéen ji xamoo diine boo meree sa yaay ja fekk ci kër gi xamul diine moom ñaar la ci xam jëkkër sang la muñal mais lan nga war a muñ am na lu ñu warta muñ am na loo xam ne jigéen lislaam tegut ko mu muñ ko mais loolu lan la donc bi mu waxee loolu te soo ko seetloo man am naa suma xarit boo xam ne dafa takk jabar 30 jours jigéen ji ñaan ko baat defu ko dara man mii suma bopp takk naa jabar 21 jours mu ñaan ma baat yóbbu ma tribunal man suma bopp man. suma expérience bopp. nga may ko non islam tas sëy bi. boo xasee dem xaadi mënatuma fase islam moo naan valable na valable donc tey loolu lépp su amee li ñu ko yóbbee mooy xàmmewuñ aada ak te léegi Séné diine Sénégal suñu xalaat la ak man mm. je pas man daal ànduma ci loolu. Mm. xalaati kenn kontewul ci diine ki xalaatam mën a konte mooy ko jeexal ngir yëpp. jeexal alquran mën koo firi mën koo waxta du ko xool mm-hmm. xam lépp ragal yàlla ba yegg ci niveau kooku lu mu wax dëgg la mm. biñ na asaka gerte Serigne Touba def ne déedéet maa la jabdalaay ne déedéet te ba tey amul hadis bu wax waaw parce que fañ tolloon moo tax Cheikh mais man mën naa wax dara tey kenn woo léegi gàgganti ma parce que du kenn ci diina ji wax naa ko sànq du ma ustaas duma ma ab sëriñ du ma mufti du ma xaadi jullit bu jàng la donc kon li ma bëgg a wax mooy faw ñuy limiter xalaat yi ci palaasi xalaat tey ci jàpp tànk bi fii nga war a gën a raxas ndax fii mooy tilim mais fii a gënal yàlla loolu du xel jàpp danga war a set sell julli mën ngaa tiim tiim day tilimal loolu du xel donc kon dama bëgg ñu xam ne xel dafa tënku xel lu nopp mënta xeeñ gu dégg làmmeñ safu ko xel du ko xalaat dafa am luy luy branché xel mu mën a xalaat fu dara nekkul xel du fa dem avant yàlla xel musta xalaat lu fa nekkoon parce que avant yàlla dara nekku fa donc foog ñuy limité xel yi ci palaasu xel limité xam-xam bi ci palaasu xam-xam te bu mu ëpp te wax ci diine taxul nga exagérer que li moy am mhm. da ngay wax lu diine wax nga noppi mhm. yonentu sa amul dogali jubal wala yóbbu safara yalla lay ne yedi man yasha wa yahliku man yasha papa papa papa papa heure bi dafa dafa euh, papa heure bi dafa jeex yow tamit nga am ak soxna ci ngeen tagu ñaar fukki fan ak ben mom ngeen am ngeen tagu mom mu yóbbu ma ci yoon ne dafa bëgguma ma fas wa monsieur ñing kaw Kaolack ñu ngi lay nuyu di ziar bu baax yaag say soxna wax na jey ma samba raison bi moy bëggatu voilà merci beaucoup cher bi amna ci dara moo tax l'islam

fii force là parce que pacte la bu ngeen signé il faut qu'on apprenne à faire la tra la la la la la comment dirais-je euh, la transition uh-huh. il faut qu'on la réussisse uh-huh. suñ ko réussit rek man jàpp effectivement couple yi dina dem dina mën am mucc dina mën yag dina mën effectivement effectivement euh, gudd fan mais tant que ñi ngi bëgg yamalé ak ndoxane

mooy ne yow jallalel transmet mon message khala bi nak moy yonent khala rasulillahi moy yonent yalla bu tedd bi nee na ñaar yoy d'abord lañ ko don laaj pour la bonne et simple raison que Sophie effectivement ñun on est convaincu que ci bir kër gor moy kilifa mm-hmm. wante ñaar ñoo yor kër buñu jëlé kilif tef teggi day melni djuma boo demee di julli góor mooy taxaw ci kanam jiite mooy cër yi ñu waxoon dañ koo séddale ba pare te kenn mënu ci dara wante bu ñu duggee ba biir foyer luwaawu yàlla yi muy yaatu ci suuf yépp bu duggee ci kër kër dafa am ay propre luwaawam te ci biir luwaawu kër ak ñaari waay dencante suñ borom day wax nañu respectante boobu win win la de mm-hmm. boobu du 19 pour cent kay 30 pour cent de <laughs> ah 50-50 la foofu. respect is reciprocal yes dafay réciproque. Mm-hmm. te bu reciprocal fofu moy lan keur gi buy tak ku njëkk fay na fay ci bir fay bobu yow bo gisee sa soxna muy ànd ak ku baxul ne ko ah soxna si beugatuma diw ñew sama keur sa soxna bu gisee ne ki ngay àndal safaan la bu duggé ci keur gi amna droit ne la ki bu mu ñewati wante ak teggin bi gëna reey bi nga doon wax ndax teggin sax. dafa ma ci ne war na consulter mais amul droit. droit bi foog nga dindi ko. su dee l'islam nga wax da ngay dindi droit bi su dee sa xalat c'est bon. nee la kenn rek lay taxaw taxaw fii nga toog yow yaa ko wax mu wax ma ni ko waaw mooy xaafisul quran ginnaaw loolu comme ni nga ko waxee rek dañoo jàng baqara ba naasi la rek suratul nisa bi nga jël cent soixante temps bi dafa jeex please temps bi dafa jeex mais temps bi dafa jeex arijaal rek nga ci jël muy benn arrête de me dire ce que je dois faire s'il te plaît dina dina xaw a doy waar mais li la papa wax non may ma non non xóotaluñ ko dama ne la li la papa wax mm-hmm. li la papa wax dara du ci teggee soxna si waxuñu dafa am même droit que borom këram parce que télé la ñu ne buñ ñu wax loolu ñu waxul

lu leer moom laa wax. dama ne néewuma. jigéen am na baat ci kër ndax ñoom mosuma leen a favoriser fenn. ndax ban dégg nu exagéré ban dégg nu jóg ndax jigéen soo koy sëyloo wala nga bëgg mu tegu ci yoon. Mm-hmm. bul def lu mu wax rek nga jël ko capturé def sa xol daal ëlbati ko bëgg a faj. Mm-hmm. del tànqamlu. Mm-hmm. di ko dégërlu ak di fenati noonu nan daal def Baye Omar daa nga ñëw di ko laaxan di ko laaxan di ko laaxan ba mujj nit ñi doon jóg taxaw ak jigéen ñi jooy naan xanaa góor gi daal lii daf cee mënta jóg walla nàngam waaye bis buy jóg di ko faj kenn du ko ko wax jigéen dina toll foofu léeg-léeg ñu xañ ko dëgg ci loo xam ne moo am dëkk gis naa jigéen ju taxaw daan ne borom këram diw wallaahi soo ko moytuwul di nga torox bëccëgum dara kam di xeex loola jëkkër ji di ci xeex ak man nanguwoo nàngam bugguloo aw nit ku siis nga su kër gi sa xëy nga commencé waaye keroog ban leen di yeew ban leen di yeew keroog keroog ban leen di yeew ban leen di keroog mbedd mi daa fees sa fees ba fot mbedd mi daa fot soo sànnee layu mu takk ku ñëw rek taxaw nan nanu mujjee wallaay doom waxoon nga ko luy waxoon nga ko ba mu koy wax nu koy dóor di ko saaga ak naan ko dangaa siis ñëpp a nga fa woon mais mujj ku ñëw rek daal di ëlbal ku taxaw daa ko bilaay waxoon nga ko waxoon nga ko amatul sens li mu doon bañ mi ngi ni jigéen dafa néew doole waaye bañal na ko borom këram ba tàyyi léegi nan la mujjee moo yóbbu añ di baagante ci naaj te mënta dem ku wax nga ne ko muñal munoo fee am juróomi doom ba pare daal di ëlbatiku di kii nangam. waaw te bañoon na ko démb ak bërki démb. man nag maa ngi nuyu oustaz boobu nga xam ne daf maa bëgg bëgg ba àddina di ko wax muy oustaz Adi Niass oustaz mhm. Adi Niass daf maa bëgg ba nit ñi di ko wax waaye oustaz bu mànd bu téye tànkam surtout maam xalifa Niass la ma nga dëkk lew na mu ngi fi walf il passe inaperçu du foo ko bëgg a gis rek gis ko fa tekk rek lay def Uh-huh. tey oustaz di nga koy suivre. yàlla ko yàlla sàmm ay ca kontaan nañu papa. bi muy jaar na seen kër. bi muy jàng waaw. oustaz bu màndu. Uh-huh. ay ca papa kontaan nañu bu baax Fall jërëjëf. merci New York waaw. ak Amine. nuyu ci anglais. dégguma. da ngay nan la nan na nan la yow léegi làkkal ma la. greetings to all my friends in the US. xanaa Gambie nga. anglais laa jàng Sénégal ah, la. waaw waaw la wax dëgg nekk nga am moo tax. merci beaucoup amin les États-Unis d'Amérique maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax Mamor Fall Mamor depuis Columbus Ohio. Mhm. maa bu baax góor gi merci Sophie merci Benoît merci cher content de nous voir. on se retrouve Inch'Allah mercredi à partir de 22h30 pour Benen numéro wu d'ici là portez-vous bien au revoir.